ar bi dafa dissoudre assemblée nationale bi pour mu mun a euh, euh, teg suprématie pour mu mun a teg ay nitam commencer liggéey loolu bu amul moo tax Sénégal ci da ngeen di tourner toujours en rond dara amu fi nag nit il faut ñuy wax parce que am nañ gémmiñ mais dara ñoru fi bañ koy màcc parce que même déclaration de politique générale amagul Sénégal mooy yéen sénégalais yi kenn xamul fan lañ jëm xanaa nit dëgër fit rek di imaginer ak yaakaar bu rafet bu ñu am mais kenn xamul fu ñu jëm suba kenn xamu ko kenn benn sénégalais mënu ko imaginer donc ñun ñëpp ñu ngi ci benn point mort lañ taxaw ñun ñëpp muy yow muy man muy keneen ak keneen parce que déclaration de politique général la ñuy xamee ni ñii lan lañ bëgg a def ak fan lañ bëgg a yegg ak yan moyen lañ ciy demee defaguñ ci dara donc amul lenn loo xam ni vraiment gis naa fi lu fi sénégalais mun a wax ñuy opposé wu dañuy opposé mais amuñu argument ñu ñu leen di défendre tam dañuy défendre parce que ñoom tam dañoo am bëgg-bëgg rek mais amul lenn lu fi ñor lu ñuy màcc parce que gouvernement bi amagul politique am politique sociale am bu mu teg politique euh, économique am bu mu teg politique nangam-nangam bu mu teg non dara amagu fi dara dara donc il faut ñu dem loolu yëpp dañ koy mun a bind rëdd ko xaatim ko voté ko assemblée nationale ñoom lu ñu mën lenn kese la lan kenn terewu leen ko muy def audit audit lañ nekk di def ñoom amul leneen ñu ngi audité partout partout mooy audit bu ñu audité ba pare ba teg lépp kayit yi après nag ñu mun a def étude solution problème solution bu ñu defee étude yi ba mat nag ñu dem yóbbu lépp assemblée nationale bu ñu dissoudre assemblée nationale bi ba defaat ay élection législative ba bu boobaa nag ñu am majorité yi ñu commencé nag ñoom indi seen politique déclaration de politique général maanaam lii la ñu fas yéene def mooy programme programme sociétal loolu mooy déclaration de politique général mooy man damaa ñëw lii laa indi réforme yii laa bëgg a def ci éducation bi ci santé bi ci euh, euh, Euh, feneen ak feneen ci euh, société bi ci nangamal nangam et cetera et cetera lii laa fas ne def lii nag dafa laaj ay moyen moyens lii la moyens lii la donc noonu la ñuy mën a commencé nag di nguuru di jiite commencé bon pas nguuru comme dans le vrai sens du terme mais maanaam commencé nag di jiite di jiite réellement loolu la fi ab Ablaye Wade def loolu la fi Macky Sall def donc ñii amuñu lu ñu mën a lu sénégalais bëgg a xaar rëk rëk rëk rëk nekk tant que lii amul donc loolu le président Diomaye moom xam na ko ñoom xam nañ ni dañuy tourner en ron mënuguñ fi def lu extraordinaire mënuguñ fi def lu sénégalais yi téye di ci bëgg a bàkkoo mënugul nekk jàpp leen ni terre bi il a fallu des années balaa ngeen di am terre Macky Sall deuxième mandat am la commencé indi terre te def na sept ans sept ans BRT bi après sept ans lépp loo fi teg rek c'est après sept ans stade bi balaa pare c'est après sept ans te stade du lamb gi balaa pare c'est après sept ans te cinq ans lañ ko faloon mu def ko sept ans. même boo sëyeeg sa jëkkër sax du ñetti weer doo am doom boo amee doom boo deful nag ci keres ba la jëm wala ci armeel ya même bu dee six mois sax boo amee doom boo deful nag ci keres ba jëm pour lu koy mun a mottali donc fii amul lan lu fi ñor bañ koy màcc ñooy défendre dañoo dëgër si rek wala ñu bëgg lu leen neex rek ñuy défendre nii mais amul lu concret ñu teg ci seen loxo ñay attaqué tam dañuy attaqué rek parce que euh, euh, euh, gémmiñ bu ubbeeku la il faut mu wax mais fi dara amugu fi dara rien tous nada amugu fi moo tax le débat reste un débat très euh, stérile inutile mooy chaque semaine nee naa leen dina am lu ñu teg ci table bi chaque semaine je vous l'avais dit si vous vous souvenez très bien waxoon naa leen ni chaque semaine dina am débat bu ñàkk solo bu sénégalais téye parce que il faut ñu lekk ko il faut ñu lekk wax il faut ñu lekk wax il faut wax ji ñu koy lekk di ko yàbbi di ko saxaat di ko macc comme madd comme madd dañ macc madd bi ba mu jeex tàkk ñu dugalaat ko capp-capp dugaat maccaat madd bi dugalaat ko ne duñ ko sànni il faut ñu macc il ñu nangul leen ko il faut ñu màcc foog ñu am lu nekk seen gémmiñ ñuy mun a ruminer di ko màcc di ko di ko di ko génnewaat di ko ruminer di ko dugalaat di ko génnewaat ba ñu doog a gis nag dara lu concret bu boobaa nag da ngay gis ay opposition boo xam ne ay argument lay indaale yu solide ay opposition bu instruite benn opposition boo xam ne dafa dem xam lépp dem dugg en profondeur xam ñii lan mooy seen déclaration de politique générale lan lañ fas yéene def lan mooy point yi lan mooy ko mun a arrêté lan moo nangam ñooñu ñu ñëw ay argument nag bu boobaa nag débat bi day kawe débat bi day neex télé boo ubbi débat bi ca kaw la ne kii di wax ay ay waxu développement structurel wala personnel wala nangam nag ñu teg ko ci table bi nag waxtaan bi neex def yëfu mag ñu dem ñu jàngiwul dem jàngi ñu liirul dem liiri ñu gëstuwul dem gëstu ji ñu wax waxu réforme de l'éducation et cetera et cetera nag foofu nag borom bopp yi ñëw nag ñi yoroon ñi ñi ñiy macc màdd di yàbbeeka maccaat di màdd di capp di yàpp ñooñu dañuy noppi parce que duñ dootuñ bokk dootuñ bokk duñ def lu dul déglu loolu la président bi xam loolu moo tax moom bind na ñi nga xam ne mooy conseil constitutionnel pour laaj nan la ñuy def pour mun a dissoudre assemblée nationale mais ñëpp xam nañ ni septembre lañ mun a dissoudre assemblée nationale il faut que assemblée nationale def deux ans ci jour bu ñu ko falee donc bu pare c'est sûr dañuy dissoudre assemblée nationale rien kenn munu ko tere ci démocratie gën a mag président bu ñëwee fekk fa assemblée nationale bu mu amul majorité da koy dissoudre muy France ak muy partout donc comme nii dinañ dissoudre assemblée nationale mais fekk ñu koy dissoudre lenn kese moo la gars yi am mooy budget bu ñu fi fekkoon ñuy démarrer rek moom di continuer di jóg ko daanu di takk takkal di capp cappal di jàngaale di jàngaale di defaale ay audit ay audit di xam problème bi di def ay étude di jàngaale di jàngaale diggante boobu nag ñuy daane assemblée nationale ba ba demaat élection ba tegaat ba mu taxaw dëgër këj boo boobaa nag gouvernement bi dina ñëw ñoom seen déclaration de politique générale seen idée seen point de vue seen lépp li nga xam ñu ñëw teg ko ci table bi nag foofu la waxtaan bi di amee solo mais pour l'instant li fi nekk nii gars yi di ko def man dama ko sax gisul le la déclaration de Sonko bu muy expliquer élève yi ak kenn ku jógee ci église bi benn du église bi de kenn ku jógee ci église bi buy buy wax ak ñu bugg ko jël daf ko ay diine <laughs> nga xam ni kon dëkk bi dañoo manqué lu ñu wax dañoo manqué lu ñu wax benn imam ne représente pas diine islam waxu benn imam ne représente pas diine islam ki nga xam ni moom mooy imam jumaaw grande mosquée de Dakar tabaski wax na waxu ay conneries et pourtant représenté wul l'islam ay jullit ñoo ñëw delloo ko ci waxu lislaam donc kenn ku nekk ci clergé bi wala nekk ci église bi ne représente pas l'église non c'est un maillon de la chaîne mais représenté wul l'église loolu mu wax ça n'engage que lui muy répondre beneen politicien loolu ça n'engage que lui c'est pas l'église ma gis gars yi bu ko mélangé di jël ay waxu benn nit boo xam ne représenté wul l'église benn kese la maillon de la chaîne bu ñëw ñu koy ñu ñu ñàkk lu ñu wax naan ay mooy moytu leen dugg ci loolu mun na indi jullit catholique fii jullit catholique dara munu leen boole. jullit catholique dara munu leen boole du nul ne détient le monopole de la vérité absolue du du kooku noonu du keneen kooku bu génnoon sax ne catholique yi génn leen ngeen xeex kenn du génn du seen papa du seen yaay moomu leen jaamuwuñ ko. am na ñu ko fi jiitu woon ak ñeneen ak ñeneen donc représenté wul zéro virgule un ci christianisme donc lan moo tax wax jooju nit yi bëgg ko jël tey Sénégal ñàkk débat di ko jël di ma bi moytu leen guerre mo fii guerre amu fi te guerre du fi am guerre amu fi te guerre du fi am Ousmane Sonko a posé un débat qui est un débat très intéressant et eh, bu mu koy posé jógul woon ay waxu ay waxu chrétien ay mais yow chrétien yi gars yi dañuy muuru chrétien yi dañuy muuru j'en des amis yuy muuru am na koo xam ne sama sœur bu nekk Sénégal moom moo may jox xaalis bi ma jox ko kooku kooku jëndal ko yi ngeen di muuroo mu koy muuroo ku set ku sell chrétien très respectueux très respectueuse du moins du naan sàngara parce que nee na chrétien du naan sàngara du lekk yàpp mbaam nee na chrétien du lekk yàpp mbaam dafay muuru nii yi ngeen di sol noonu sama sœur moom moo moo ko koy jëndal di ko ko jox moo muuru set sell maîtriser bible bi débat yi ñuy def lépp lépp lépp lépp da ngay gis benn conformité bu am ci ci ci alxuraan ak bible bi ci yu bari ci histoire prophète yi ba bi moo ma may bible et je lis j'ai lu la Bible, ki est une bibliothèque. Donc, jàmm jooju am ñun ñëpp benn famille la fii du parce que Sonko la benn euh, waa ji tontu fële ngeen bugg koo jël def ko naan ka ay affaire Sénégal chrétien dama ne kooku bu génnoon ne chrétien xeexle sax kenn du génn. parce qu'il détient pas le monopole de la vérité absolue de l'église ou bien de qui que ce soit donc débat yeggul foofu pourquoi loolu lan moo tax gars yi bëgg affaire bëgg bëgg ngand ngandal lu dara amul dara Sonko a posé un débat et c'est vrai est-ce que xam ngeen affaire voile yi yàggu yàgg yaa problème bi yàggu fi man ci école privée catholique laa jànge Pidouge Pidouge chrétiens yi dañuy sol ay croix ñun dañ dañuy ñëw <laughs> am na ñoo xam ne chrétiens yi eh, Pidouge ñii dañuy sol ay croix ñii dañuy muuru bëri woon nañ fa ay naaru libanais dañ doon muuru kañ la problème boobu am parce que France problème bi France la yëngoo mu commencé répercuter ñun ci suñu système éducatif parce que système système éducatif bi déjà dañ ko war a réformer déjà premier problème mooy réformer le système éducatif Sénégal ngay jàng ba dee doo am xam-xam Sénégal ngay gis ku jàng ba dugg université ku la dàq def faute université la yeewoo ku la gën a ñàkk xel université la ne nga xam ni kon jàng mi amul système bi baaxut système éducatif bi baaxut ñu war ko réformer déjà ay leçon yoo xam ne suñu maamaati maam ñoo ko doon jàng ba léegi ñu koy jàng amul benn njëriñ kan moo fi le Japon du Meiji ban njëriñ la la amal le Japon du Meiji ban njëriñ la la amal ñu fi jàng la révolution chinoise ban njëriñ la la amal sa àdduna lu dul bourrage de crâne et cetera et cetera ñu war a xoolaat ni ñuy jàngalee donc loolu lépp dañ ko war a réformer léegi nag école privée catholique yi nga xam ne ñii dañ doon sol ay croix am na ay copains yoo xam ne man si école privée catholique laa jàngee ñii dañ doon sol ay croix ñii doon sol lu leen neex ñii doon sol lii ñii doon sol la mais depuis France bu mu commencé def ay affaire yooyu noonu ay affaire islamisme ay ay distinction ay non non non ku ku muuru du fi dugg ku nii du fi dugg ko nanga nanga affaire bi nag dugg fii parce que tamit dafa am ay école française yu nekk biir Sénégal ñun ñun ay école privée catholique la ñu amoon école privée catholique sénégalaise ñu dem ba léegi nag ay école française am ay Jeanne d'Arc école française la moom yoru yorul programme Sénégal programme France la yor am yeneen école yoo xam ni ñoom dañoo ñëw fii ñu installé wu mais dañoo yor ay programme occidentaux yi programme occidentaux yi lañ yor di ko jàngale fii léegi nag ñooñu dañoo bëgg a par rapport ak la France problème boobu lu Ousmane Sonko posé c'est un problème très important boo xam ni ni ko waa ji tontoo du noonu donc ay ay ay Jean Mermoz ñooñu programme France lañ yor programme France ay Jeanne d'Arc programme France donc loolu déjà lu ñu war a jàngat la lu ñu war a jàngat la France bi nga xam ni moom moo ñëw ay base française bi installé fi ay école am yor programme moom euh, réewam France di ko instauré fii ci suñu subconscient wu subconscient wu euh, élèves étudiants sénégalais yi et cetera et loolu tamit dañ ko war a xoolaat dañ ko war a xoolaat parce que dem France ubbi fa école sénégalaise ne veut pas dire nga yor ay programme Sénégal wala nga nga nga yor benn euh, luñ ko nu ma ko mën a expliquer nga yor loo xam ni si règlement intérieur u Sénégal la donc man pour man ñoom dañoo am seeni programme ay cour Sainte-Marie de Anne ay Jeanne ay et cetera dañu am seen programme bopp je suis parfaitement d'accord ne boo leen bàyyee ak seen programme tubaab yi noonu nga leen war a bàyyee ñoom it ñoom ñi tere ay fulaar ak yooyu ñu tere ay seeni fulaar waaw yaa jël sa doom dugal fa bu nga fa dugalee yow xam nga bu baax ni kii école française lañ ko fiy jàngal xam nga bu baax ni programme France bi lañ koy jàngal kon boo fa dugalee sa doom bul ñu egg forcé ne il faut moom mu muuru déedéet <laughs> déedéet parce que France boobu amu fa te kii école française la bu nekk biir Sénégal donc da ñoom tamit programme boobu la ñu yor programme bi ñu lay jàngal ak seen euh, euh, seen euh, seen système française bi ñu ñu lay jàngal ba pare encore seen règlement intérieur française bu ñu lay jàngal donc boobu ñoom ñu fa dugal seen i doom nañ ko nangoo noonu sonk bu mu doon l'avocat du diable bu mu leen jéem a sax défendre papa bu am jël sa doom bàyyi ko ci bu ko dugal ci école yeneen yi dem nga dem dugal ko ci école bi bu nekk parce que xeeb nga suñu système xeeb nga et cetera et cetera ba dugal ko fa boo bu buggee muuru ñooñu ne ko règlement intérieur bi kenn du fi muuru kooku du Sonko moo koy défendre déedéet du Sonko moo koy défendre parce que moo jël doomam dugal fa te dugal du foofu mu ko dugal am nañ seen réglement intérieur que du Sonko moo war a bafoué seen règlement intérieur du Sonko moo ko war a bafoué bu fekkee nag dafa dañoo jël affaire bi mu sérieux bu boobaa dañuy appréhender mbir mi teg ko ci table bi ne mu mënu leen nekk biir Sénégal di jàngale ay système française euh, un système français di moins dafa bëgg a bëgg a la France parce que c'est la France boo fa xam ni France la bañ nañ ko ba ñoom ak Sénégal sax bokkuñu heure d'ouverture école ak heure de fermeture septembre école française yi ubbi septembre ñoom ñu ubbi ñoom dañoo am seen réglement intérieur seen règlement intérieur qui naa rien à voir ak suñu constitution suñu constitution qui naa rien absolument rien à amul benn loi constitutionnelle boo fi mën a teg boo xam ne dañ ne école bi na doon école française ba pare nañu yor ay éducation française système français ba pare bu ñu am règlement intérieur bu français amul mënoo ko teg fii tu peux pas vouloir euh, le beurre et l'argent du beurre du damay lekk ginaar mais duma du ma lekk nen damay lekk euh, euh, ginaar mais du ma lekk non non non il faut arrêter boo nangoo da nangu boo nangul nanguwoo munoo nangu di bañ bu di nangu di bañ munul nekk ba nga nangoo ay école système français bu dugg fi nga nangu ñu installé wu fi nga nangu ñuy jàngale le programme français noonu nga war a nangoo seen règlement intérieur yow yaa ko nangu ba nangoo nga war a nangu leneen munoo nangu lii ne lii doo ko nangu constitution bi lii la ma nangu non loolu ça n'existe pas il faut arrêter c'est la France qui est là-bas c'est la France comme nu mu amee euh, militaire français biir Sénégal ñu installé wu fi lépp lu ñuy def France moo leen koy gi doo leen ko dicté te pourtant biir Sénégal lañ ne ay militaire français lañ lépp lu ñuy def France moo leen koy dicté te sa biir dëkk lañ nekk donc sama raisonnement moom mooy bu dee ay école privée catholique la yu yu yu nekk ci suñu système éducatif boobu ñoom am nañ droit sol seeni euh, Euh, euh, seen seeni i seen i seen i seen i voile parce que bon amuloon interdiction boobu euh, ci non attendez bu attendez ci yenn écoles yi la école Pidouze ba léegi sañuy jigéen yaa ngi muuru boo demee Kaolack école privée catholique la fa ma jàngee woon chrétiens yi di sol croix jullit yi di sol lu leen neex wala di muuru ba léegi ñi ngi muuru ba léegi ñi ngi muuru ah il faut bien écouter <laughs> ah li voile bi école privée yi nga xam ne ñoom ñoo française yi ñoo ko fi imposé on on comprend trop bien on comprend trop bien école française yi ñoo ko fi imposé problème bi dafa ñëwaat du problème mu tey problème mu depuis Ablaye Wade la mu daanuwaat ci Macky Sall ñu saax saaxe ko naxasaale ko moom mooy ñëwaat encore mooy ressuscité wu mooy ressuscité wu donc école privée catholique yooyu noonu di recevoir les les euh, euh, les subventions de l' état sénégalais ñoom appliqué wuñ loolu c' est les écoles françaises ñooy appliqué la laïcité ñoom ñoo wax ni kenn du fi dugg a kenn du fi dugg luy wane ni yow fii nga bokk wala fee nga bokk doo fa dugg a doo fa dugg a euh, voile doo fa dugg ak nangam ak loolu école française yi la yi nekk biir Sénégal problème bi dafa ñëwaat mais problème bi. yàgg nañ ko xam nañ ko xam nañ ko bu baax dañ koo xeex yaaw selim bii nii tëj nga xam ni école bi euh, kii moo ko moom mooy cirque ba bu jëloon xaalisam dugal ko ñun rappeurs yi ñoo jógoon di ko xeex on maîtrise ce problème là mais donc problème bi boo koy débattre doo ci gis ay affaire u France nga ciy gis l'oligarchie wala l'impérialisme française buy imposé wu ci Afrique bi et cetera foofu nga war a yóbbu débat bi mais doo ko yóbbu ci ay jullit ak chrétien ça n'a rien à voir ça absolument le fra la franc-maçonnerie et cetera et du fii du affaire jullit ak chrétien xaw ma nan la débat bi mujjee foofu quoi mais même Sonko quand il parlait il parlait de la France sincèrement man bu ma dégloo discours am man France laa gis moom moom France la doon la doon kiyante man xaw ma lan moo ci dugal lan moo ci lu ci dugal prêtre bi je j'ai même pas compris mais Sonko quand il parlait il parlait même pas de l'église il parlait de la France France la doon duut baaraam mais xaw ma lan moo ci duggal kële loolu moom <laughs> xëy na dafa amoon lu mu màttu xëy na dafa amoon lu mu denc man loolu laa jàpp ne kii même nu mu tontoo nga xam ni dafa amoon benn haine benn rage viscérale contre Sonko parce que vraiment foofu à part ay saaga xasaate kii gisuma gisuma argument xam-xam amu fa liir naa lettre ba jeex gisuma ci xam-xam ku mer la di yàbbeeku ku mer la di yàbbeeku moo xam lan la meree Sonko moo xam mais ku mer di yàbbeeku la mais fii Sonko bu muy wax il parlait avec la France que yéen mënu leen nekk seen biir réew yéen waa France di imposer seeni i loi ak seen i règlement bëgg a ñëw suñu biir dëkk di ko fa imposer kon il parle avec euh, euh, euh, l'école française bu nekk Sénégal ñoom am nañ droit ne góor jigéen am na droit dox fu ko neex doxaan ku ko neex mun ngeen bokk liggéey muy émail du pasteelu di rosa wu di damm mbagg di wax ak yow te doo daw naan na dama la nopp te doo ko dóor di la doxante doo ko bumax donc loolu loi bi moo leen ko may ñoom ca France ñu nangul leen ko ñu ne kenn ku ne benn jabar nga war a am nga bëgg keneen ñu ne la doo ko am mais góor jigéen bi moom am na droit di jël taatam di ko jox ku ko neex jigéen bi am na droit jaxaan ak jigéen mais ñun jullit yi ñun amuñu droit walla wala chrétiens yi amuñu droit am ñaar wala ñett ñun ñu tere ñu ko. lu ci bari ñu tere ñu ko même boo amee ñaar sax bu ñu la jàppee dañ lay delloo sa dëkk wala indil lay problème nga xam ni keneen ka ngay takk sax clandestinement nga koy takk muy làqutu wala di nëbbatu wala du nekk ci kayit yi wala nga ne sa sœur la yaa xam. waa léegi ñoom ñu def seen i loi def seen lépp am droit yëpp ñëw sañu biir réew di ñu tere ñun tamit suñuy droit ak suñuy loi donc loolu la leen Sonko di wax leen li ngeen am pouvoir nekk seen réew di ñu ko tere ñun te sañu sañu sañu jullit may ñu ko sañu islam may ñu ko ngeen xañ ñu ko ñu nangul leen ko parce que seen réew lañ ne mais mënu leen ñëw si suñu réew tamit di ñu imposer loolu mënuñu ko nangu. donc moom France la doon waxal xaw ma nag lan moo ci dugal euh, prêtre prêtre bi loolu moom moo am problème mu boppam donc ça n'a absolument rien à voir de l'église sincèrement benn euh, imam ne représente pas lislaam déedéet benn prêtre ne représente pas l'église déedéet et pourtant ca Rome valide nañ mariage góor jigéen taxul chrétiens yi accepté ko ils l'ont rejeté catégoriquement le chrétiens euh, les catholiques du Sénégal et pourtant à Rome validé nañ mariage góor jigéen donc il faut que ça soit clair est-ce que bu ñu ko validé tax na suñu chrétien ki Sénégal yi donc et pourtant c'est à Rome Rome laa la wax <laughs> validé nañ ko ñoom ñu rejeté ko fii Sénégal yëpp ñu rejeté ko kenn defu ko donc new ñu ay nit yoo xam tam dañuy topp rek tàmba mbaalu loo leen wax ñi kii donc donc kooku il représente pas l'église donc bu leen jël débat bi di ko yéegal la xëcc ka ñot di bëgg koo def ay affaire jullit ak chrétien jullit yi yëguñu ci seen bopp jullit yi yëguñu ci seen bopp dañoo gis ni problème bii du problème mu ay affaire euh, jullit ak loolu li fii problème de souveraineté nationale la ñu souveraineté souveraineté maanaam liberté ba nga am yow sa souveraineté ngay ngay ngay nangu yenn pratique yi yoo xam ne ñun nanguñu ko ba pare ñëwaat bàyyi loolu ñëw di imposer sa ingérence ci suñu système donc kooku c'est pas normal donc foofu la soo ko di waxee et c'était très important débat bi foofu lañ ko waroon yéegal quoi c'est souveraineté ci droit ci règlement intérieur ci réforme de l'éducation foofu la tam yi waroon nekk thématique yi ci ci télé yi mais nga fay ñaan du moytu leen loolu day taal dëkk bi lu ak chrétien do moytu leen yooyu way <laughs> débat bi daal wacc na débat bi wàcc na trop débat bi wàcc na trop benn xeetu wàcc boo xam ni saa yu ma yewoo ubbi internet bi fekk fi débat bi damay aw mu envie lu dul dee te Sonko da ko yégal nag le niveau a été très très très élevé fu ko Sonko yóbbu mais appréhension yi nul zéro ba ci prêtre boobu noonu hors sujet la def hors sujet dafa vociféré ay naqaram ak ay mettitam ak yu mu dencoon mais hors sujet la def deux cent pour cent parce que là on parle pas de l'église mu on parle des droits yi nga xam ne ñële colonialiste bi moom nangul na ko dëkkam te ku fa ñëw day adapté wu ci réalité yu mu def ba pare ñëw suñu dëkk bëgguñu ko imposer foofu lay waxee kon ne loolu c'est pas normal donc kële moom daa dugg dugam moo tax soxloo ma wax ma mais pour xamal ni rek kooku représenté wul gars yi jaamuwuñ ko ko représenté wul l'église christianisme fu mu nekk ba léegi nii fa muy diine bu set diine bu sell diine bu nit yu baax nit yu am éducation man ci ñoom ci seen ci seen milieu laa màggee ci seen millier bu may xale bu ndaw ba léegi ci millier christianisme laa màggee tey ay nit yu set te sell laa ci xam ay nit yu baax a baax a baax nit yoo xam ne ku leen topp ku leen topp laa la wax boo dee dem ajana jul bu leen topp dee dem ajana ay nit yu set ay nit yu sell ay nit yu baax nit yu bugg ñu tooñ du sàcc duñu fen duñu du jaxase du ñu ràmbaaj dañoo jub et cetera et cetera dal noppi correct ñu kenn mi ngi fee dell ci christianisme bi donc ñun ñi màgg ak ñoom xam nañ leen donc problème bii du problème euh, religion du problème religion léegi nag c'est quoi la laisité laïcité dàqul diine déedéet dàqul diine de laïcité mooy day accepter diine mais diine yi dañuy mun a maanaam cohabiter ensemble kan bañ a toroxal sa morom wala wàññi ko wala nanga maanaam diine yi dañuy cohabiter ci jàmm ak salaam nekk loolu mooy li nga xam ni moom mooy suñu constitution un pays laïque te loolu moo fi mus a am te loolu moom ku koy xaar da ngay fande ay jullit ak chrétien jàppante yooyu moom <laughs> moo tax ma gis ay dialogue islamo chrétien ma ne dóorkat lañ musu leen gis dialogue islamo dëkk bu amul loolu ma gars yi ay paa yu mën a dóor ñooy toog naan dialogue islamo chrétien colloque di dóor ay financement di lekk rek toog dialogue islamo chrétien gis ñu benn isla benn jullit buy xeex a chrétien amul amul amul fenn mais noonu lañ koy defee teg seen benn lobby li lekk rek dialogue islamo chrétien même lu mel nii sax la nga gis ñu génn ñoom tak ah dialogue islamo-chrétien car catholique yaa ngi koy xeex ak jullit yi attention attention génn leen financement yi ñu waxtaan ak ñoom génn leen financement yi pour ñu ko warax nga gis benn paa bu liggéeyu xëy gontul retraité 1830 toog di di encaissé dialogue islamo-chrétien ba jullit ba di encaissé keneen nag ñoom ñu toog nag dialogue islam fekk dara amu dara dara amu fi Sénégal ba jusqu'à l'extinction du soleil ba adduna di tukki jullit du xeex ak chrétien duñ mus du fi am munu munu am amul benn situation buñ mën a buñ mën a yóbbu ci loolu amul ay malfrat ay escrocs ñoo toog di wax ay dialogue islamo-chrétien di créer ay ay thématique lu jëm ci ay ay attention réew mi dara du fi tàkk dara dara du fi tàkk dara parce que ay jullit conscient ñoo fi nekk du benn benn euh, imam day taxaw rek ne attention ñu ngi song islam génn leen rek man ma génn xanaa damaa dof attention ñu ngi song islam génn leen doo benn jullit du génn dañ yow la ñuy lijjanti sax yaay kan yow kii vient d'où est que yow sax jullit nga yow léegi jullit yi foofu lañ toll léegi kon du benn imam mooy taxaw fee rek génn leen islam a ngi waaj a dee du génn leen rek jullit yi génn yor seen jaasi ana fi ay jullit yu conscient fi ne noonu la mel tamit ci église bi chrétiens yi conscient ñoo fi nekk catholique yu conscient ñoo fi nekk du benn prêtre na jóge fee changement rek ñu jël seen jaas yi ana jullit yi ko bu dee ay waxi dof la ak ay escroquerie la sàcc donc côté boobu moom xaaruñu leen léegi nag lu Sonko wax noonu c'est important nga ñëw benn dëkk ñu am ñoom it seen i loi am seen i règlement am situation socio-culturelle nu ñuy nu ñu conceptionner ak configurer seen seen société nga jóge fële am benn vent boo indi yow islamisme boo ne islamiste dëkk bi ñëpp taxaw ubbi seen nopp yi taxaw naan bombe atomique dafay reye attention daw leen islamiste boo ne christianisme ñoom ñëpp toog di ree <laughs> parce que lan parce que moo boobu garaaw luñ ko donc ñu jël benn moo lu tey ni islam léegi kenn amul fitu wax islamisme islamiste islamiste ñu booj wóot allahu akbar laa ilaha illallah ñëpp daw fat seen nopp ne loolu yëpp nag tubaab yi ñoo ko def faramason yi ñoo ko liggéey ñoo toog liggéey ko liggéey ko ba jël affaire boobu daf ko mu doon danger caricaturer la profet saboter def lu leen neex ñoom ci monde boobu lañ nekk di dox ñoom ñoom ñoo nekk di ko dox nan la ñuy def te boo duggee ci école yi nga gis ay signe franc-maçonnique yu fees dell dell ñu ngi ci école yi école yooyu ñuy tere yooyu boo fa duggee signe maçonnique yu dul jeex mi ngi ci seen miir yi mi ngi partout France du dëkk du dëkk katolik dëkku faramason maçon la franc deux cent pour cent église yëpp a tëj benn français damatul église dañ leen di wàññi ci baaraam église yëpp te dëkku franc-maçon la système beeg lépp système mason la franc-maçonnerie léegi nag comme dañuy nekk ñoom ci xeex islam jeux olympiques yeeg da ngay gis jeux olympiques yi gis nga signes yi nga ci gis yëpp ba pare am na sax ak couleuru LGBT partout arc en ciel baa ngi dóor même bu ñu dóor pataare arc ar couleur arc en ciel yay génn vum nga gis donc ñoom ñi ngi ci seen i lobby ñi ngi ci seen euh, LGBT ñi ngi ci seen et cetera ñoom dañoo nekk ci beneen monde ñoom loolu ça n'a rien à ak l'église ça n'a rien à voir ak l'islam ça rien à ak ay religion yii nii wala orthodoxe wala et cetera et cetera c'est le satanisme deux cent pour cent léegi nag benn problème moom moo am son Sonko posé loolu dëgg la te man je suis d'accord bu dee da xeex yow sa autonomie di xeex sa souveraineté sa biir dëkk ay nit taxaw ñu ne am na ay écoles yoo xam ni kenn kenn du fi jaamu maanaam lu nga gëm yow lu nga gëm du ñëw ci école boobu man bu may jiitee dëkk boobu dama naan déedéet déedéet man ndeem seen école la ndeem école française la ndeem mais xoolal man sama dëkk man doo fi ñëw ndi fi di fi tere nit lu mu gëm du amul du ma ko nangu c'est c'est c'est ça et tous les Sénégalais épris de justice autonome souverain dañoo war a ànd lu Sonko wax wallahi billahi bu ma doon Sonko benn kàddu laa du ma ci teg ñaar dama ne fii réew mii France doo leen fi indi seen école teg ko sama biir réew di fi jàngale seen système ba pare ne samay doomu réew amuñu droit muuru wala amuñu droit sol grand mbubu du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg yéen lu leen neex seen réew day am mais man sama réew man dara lu ma lu ma war a imposer du fa am yooyu man aw ma droit am sa réew ñaari jabar man aw ma droit daq ab góor jigéen bu may doxaan man aw ma droit bañ ab góor jigéen bu may doxaan ñi ma ko dóor ba pare nga bàyyi loolu lépp nga ñëw sama dëkk di fi imposer ne kii du muuru maa lànk te loolu mooy dëgg maa lànk maa bañ sama réew la doo imposer sa réew bëgg imposer sama réew sama réew man maa koy imposer man chrétien bi am nga droit sol sol sol croix nga dugg ci école bi yow musulman bi am nga droit boo ko sentiree muuru duggal ci école bi te loolu mooy dëgg ma xam ba xam man France moom moom wala ma xam ba xam man France moom moom wala te loolu lu ko wax noonu képp koo xam ne souverainiste nga wala yaa ngi tenter vers le chemin euh, euh, du souverainisme da nga ko war a accepter. malgré tout da nga ko a accepter man quand j'ai écouté ce discours là xalaatu bu woon sax ni am na benn un soi-disant ku naan chrétien la ku ci war a tontu moom moo tax lettre bi dafa ma betta betta bett bett dama dama dem di kan kii kan la ki ki ki wax lii kan la est-ce que jàng na est-ce que est-ce que comprendre na géopolitique est-ce que ki am na xam-xam quoi est-ce que ki am na xam-xam sincèrement quand j'ai lu la lettre j'ai vu benn ku en ku mer ku mer wenn ku soxor ku ku bëgg a génne benn rageam ku moo tax même lettre bi sax benn benn benn intrus la quoi benn intrus bu jóge fële bu mer quoi yow fii dëkk booy ci guddi nga xoma entre guillemets taxawel ne quoi en attendant ñun souverainisme la ñuy wax liberté la ñuy wax libération d'un peuple la ñuy wax psychologique sociologique teg sañuy configuration xeex ak la France ci lim ñuy bëgg a ñu commencé di teg ay pas yow nga ñëw hors sujet loolu moo tax peuple bi dañ ko waroon bàyyi fële moom en tant que représenté wul église bi de moomul église bi de du papa église bi jiitewul église bi na loolu na ko xam donc kooku de ñukk ngeen ko fa waroon def ak lettre am vraiment wax ci débat bi jóg ba Macron yëg ni France Sénégal teg nañ ay mbir yu day ni chaque chaque jour saa yu yëkkatee yu mel noonu am ay yàqkat yu ko yàq Sonko bu mu waxee Cassius Belli di wax ci waxu euh, góor jigéen yi et cetera gis nga waa nu nuñ ko jëlee def ko ñoom benn kii non non non dafa dafa nangu góor jigéen loolu yàq seen débat te boobu débat bu neex la woon bu ñu waroon noqanteeg wala France ci débat boo xam ni dàq ginaar waxaale sañuy soxla yëpp yàbbeeku foofu noonu ba France yéen ni ay l'Afrique nag jóg nañ Mali détaché wu na Niger détaché wu na euh, euh, euh, Algérie détaché wu na et cetera et cetera Burkina détaché wu na en tout cas Sénégal la ngi waajal détaché parce que ñu ngi commencé lancer ay cri de guerre ne dañuy libéré wu foofu bu jàlloon dëgg-dëgg débat bi kawe noonu bii tam dafa waroon ñëw gën a kawe réponse à la France par rapport ak ñoom lu ñuy teg ak ñun maanaam ñoom ñoom lu ñu bëgg a imposé ak ñun lu ñuy bañ foofu la war ne mais kii moo ñu yàqal vraiment euh, euh, Latir Ndiaye yàqal nañu affaire ba nag mujjee daanu doon doon débat de caniveau débat wàcc sax mais vraiment fu ko Sonko yéegaloon daal pop borom xam borom xam-xam yi dañoo daw Sénégal nag Sénégal ak a bëri borom xam-xam mais dañoo daw ñoom ñëpp a ngi kër ñoom ñëpp a ngi seen kër toog koo ci wax waa yow joxaay doo génn ma ne fu muy génn ñu saaga ma euh, fu mu ne nii mola ah, débat bi suufee na de fu mu ne nii bu ñuy génn ñu ñuy saaga parce que euh, dëkk bu ñu def taatu neen di fecc di feccee def taatu neen di fecc boo fa solee tubay <laughs> doo am jàmm boroom xam-xam yëpp a daw ñëpp a daw ñëpp a ngi seen biir kër yi ut seen njaboot yi noppi parce que ragal a génn ñu saaga leen wala ragal a génn ñu manqué leen respect mais normalement débat bi kooku nu mu ko suulee waru koon suul dañ ko waroon romb nële ne ko ñukk na yàq bu naqare yow toogal foofu maîtriser woo la ñu wax ñun si souveraineté lañu nekk souveraineté alimentaire souveraineté nationale souveraineté spirituelle souveraineté mentale souveraineté euh, psychologique sociologique souveraineté souveraineté ci monde boobu lañu nekk ñëpp a ngi détaché wu te loolu bokk na ci lu ñu war a mun a libéré wu foofu la ñu waroon def mais kooku yàq ko far nag gars yi topp ko vraiment gaa yi wàcc wàcc topp topp ko ci kaniwu yi mais il représente pas <laughs> le christianisme kooku buñ ci pertant donc on on dit on à la France que dañuy libéré wu par la force ci fépp fu ñu jàppoon nañ fa libéré wu militairement dañu war a wu parce que kii di souveraineté par la l'armée bu fekkee l'armée française mi ngi Sénégal ba léegi euh, da ngay da nga am fit di wax souveraineté rek mais souveraineté amu fa souveraineté mu ngi tàmbalee ci armée armée nationale nationale lépp luy national ñu bugg fa teg seen mainmise loolu souveraineté mënuñu ko fa réclamer donc l'armée française doit quitter amul benn njëriñ Sénégal dara musuñu ko def Sénégal toog di espionner naan dañuy former kese amul lu ñu njëriñ l'armée française il doit déga il doit dégager dëkk yu am na dëkk dëkk bu ñu nekkul jàmm nga fa amul benn njëriñ bu ñu jógee foofu tamit seen système bi ñuy def ba nga xam ne ko instauré fii ñu commencé xeex ko dind ko déjà ni ñu développé woo ci xelu sénégalais bi ba nga xam ni kii làkk français lañ ne boroom xam-xam la loolu rek problème bu nganda nganda nganda la bu nganda nganda nganda parce que nit koo xam ni yow émancipé woo nit koo xam ni yow ba léegi yaa ngi euh, colonialisme bi mi la téye ba nga xam ni suñu maam yi njëkkee tam c'était la même chose ku doon làkk français mooy borom xam-xam ba léegi Sénégal ñi ngi jàpp yooyu yàkkamti nit ki wax ci français pour ñu mun ko corriger mais bu waxoon wolof cent ans duñ ko corriger donc loolu lépp lu ñu war a liggéey la lu ñu war a liggéey ci éducation bi à travers l' donc vraiment man discours Ousmane Sonko bi je suis parfaitement d' accord léegi nag am na ñoo xam ne ñoom <laughs> bon ñooñu ay ay ay euh, africain masque blanc lañ souvent ñoo jël seen doom sax di ko yóbbu ay école école yu ñu jàpp ne ay école française la quoi dem leen xool concours général yi pour nga fekk fa ay école française yi ko jël c'est tout un problème ah wallaay la azim bu ñuy jàng ba léegi ay lycée géejawaay ñooy jël premier ay prytanée militaire ay ay lycée Diourbel ñun bu ñuy jàng ñoom lañ doon concoursal parce que dañu xam ni foofu jàng dafay génn jàng concours général yi quatre-vingt-dix pour cent ñii ñoo ko doon jël moom mooy lycée bu bu bu Diourbel bi Ahmadou Bamba wala prytanée militaire da ko mus a jël Charles Thioro rek wala jigéen yi nekkoon Gorée mooy école boobu noonu xaw ma ba xam mi ngi existé ba léegi Mariama Ba je pense Mariama Ba wala lycée bu bu bu bu Géejawaay ñoo ko doon jël pour nga gis ci ay école française yi nii dara xamuñu ko dara duñ jël tous léegi nag am na ay parents yoo xam ne ay c'est des complexés Sénégal lañ nekk mais ñoom pour ñoom euh, ci français lañ français wala française yu ñuul kukku nag yu jël seen doom même seen biir kër am nañ complexe wala wala Mariama Niass wala wala Mariama Niass ñooñu ñoo ko doon jël mais ñële wala Limaamu Laay on se rappelle trop bien ñii ñoo fi nekkoon doon jël concours général ñu bu Limaamu Laay moo rajaxe concours général yi wala Mariama Niass wala Mariama Ba bu bu bu bu bu bu euh, kii bu jigéen ñi école de fii bu nekkoon Gorée wala mu nekk Prytanée militaire wala mu nekk euh, Cheikh Ahmadou Bamba bu Diourbel ñii ñoo ko doon rajaxe loolu tegoon ñu ñun naan ko te pourtant ay Jurbel la ñu nekk te école école publique la ay ay euh, euh, ay Saint-Louis la ñuy nekk Charles Thiorès wala ñu nekk ay et cetera et cetera ñu nekk ci banlieue bi mais ñi nekk ay gendarme ak dara duñ ko jël dara tous doo leen fekk ci benn prytanée militaire donc gars yi dañu am complexe boobu parents yooyu am complexe nag di jël seen doom di yóbbu foofu xeeb lu ñu am wala lu ñu kii foog ni seen doom yi foofu la ñuy jàngee xam-xam jël seen alal yëpp def fa kon konafata tous rien nada man gisuma ci produit yu bëri moo tax euh, ñooñu lu may wax ci début bi rek xeexal leen sax perte temps la quoi vraiment ku complexe ba jël say doom yóbbu gendarme kat ay GIA ak xaw ma je sais pas école yooyu noonu ay Saint Mitterrand Saint Jean Richelieu ay kii seen parents yi complexe làkki français oui je suis euh, je suis descendu euh, non kii maman ouais papa je veux du beurre chocolat ñooñu nañ ñoo ko ca xaj man pour man Sonko waru leen sax defaan ndax dem bàyyi foofu buñ voilé wul xolal gëmuñu sax ñoom lañ comme seen doom yi dañoo buñ demee nañ leen dàq nañ leen dàq ko parce que ay comp ay wees ay complexe lañ ñoom waaye ay comp fa ñu dugg la fa dugg lu ñu leen ñoom la voilà te amuñu ci ay résultats escomptés sax amuñu ko ci c'est des complexés yu mag sax ñu ci bari sax ay complexe lañ léegi ñooñu moom vraiment bu ma doon Sonko du ma leen défendre quoi ku fa yóbbu sa doom ñu ne ko doo fi voilé nañ ko nokk ca xaj <laughs> loolu man loolu laa woon ko loolu laa gëm mais école privée catholique yi dañuy voile chrétiens yi sax dañuy ak chrétiens yi sax dañuy voilé yu pieuse dañuy voilé donc ñooñu amuñu problème boobu école privée kon nag def leen différence yi nag école privée catholique gaa yaa ngi fay voilé ba léegi interdiruñ ko ñu ngi sol ay croix ba léegi interdiruñ ko école française yi école française yi lañ ko tere il faut faire la part des choses école française yi Jeanne d'Arc ay ay ay kii Saint Michel Michel fii ah, ma papa maman j'ai grandi euh, euh, mooy cuq-cuq yu ma lekkatu beurre chocolat yi donc ñooñu pour man Sonko bu mu leen défendre vraiment ay ay parents complexe lañ yor ay français bi lañ jommal mais gëmuñu dara. ñooñu bu ñu leen sax defaan nañ dem fële ñu leen nañ ñuusante seen biir ñu concentré wu fii ñun xool nu ñuy sañu école bii ndax lañ ko réformer defar leen léegi bu nekkee fële ay immaculée conception ay Jeanne ay ay ay je sais pas Saint-Jean ay Saint-Georges xawma lan nag lañ yooyu noonu <laughs> mooy yàlla école école française yi ñoom nañ ko gérer seen biir. mais école privée catholique yi dañuy sœurs yi dañuy muuru am na sax ñu dul sœur di muuru te di ay chrétienne yu pieuse laa la wax yu pure donc côté boobu moom amul problème je pense que loolu c'est réglé yéen xam ngeen école yi mooy ay Jean Mermoz ay Jeanne d'Arc Jean Michel Jean Michel Larquet je sais pas musuma jàngee ci école yooyu donc <laughs> musuma intéressé man école euh, P12 yooyu yooyu yooyu mooy école mooy école chrétien yi P12 euh, euh, Jean 23 <laughs> yooyu la Jean 23 P12 Jean 2 Jean tel tel tel P9 P yooyu ñooy école privée catholique loolu interdiruñ ko ku dem nag jël sa doom bàyyi ko ba yóbbu ko ci école française yooyu luñ la fa rëkk sa ndigg lijjanti ko complexe leen fa donc il faut faire la part des choses école privée catholique te interdiruñ loolu interdiruñ loolu donc catholique ak ay jullit amuñ amuñu fa problème nañ ko tegee na leen a yàq naa loolu moom existé wul ku ko bëgg a def sa problème nag yow la waaw waaw mi ngi noonu ñu ngi noonu moom la Jean Flévert Jean de la Fontaine Jean Mermoz Jean euh, Jean d'Arc Jean nangam ñooñu ñoo ñooy privé française yi bokkul ak privé catholique yi privé catholique interdiruñ ko catholique yi interdiruñ voile mus ñu ko interdire franc-maçon yi ñoo ko interdire franc-maçon yi mooy ay Jean d'Arc ak euh, euh, ngeen koy waxee Jean Prévert ak yooyu noonu ñooñu ñoo ko interdire Jean de La Fontaine ak Jean Mermoz ñooñu ñoom ñoom ñoom ñooy franc yi. franc-maçon yi école franc-maçon yi ñoo ko interdire yi nekk Sénégal yu France teg Sénégal ñuy jàngale foofu nay leer il faut vraiment la part des choses donc euh, comme ni mu ko waxee bu weesoo loolu parce que loolu moom du débat sax <laughs> comme gars yi dañoo manqué waxtaan xam naa loolu moo tax ñu jël ko bu ko def débat bug cee xumbal ay Saint Michel ak nangam nangam waaw ñoo noo Saint Michel école école privée catholique la woon du du Saint Michel ay Saint Jean Gabriel yooyu ay école privée catholique lañu woon <laughs> yàgg nañ ci de fa lañ jànge moo tax maîtriser nañ ko yooyu ay école privée catholique lañ du ay école tubaab du école française de Saint Michel du école française école privée catholique la woon voilà dafa yàgg am ñuy muuru dafa yàgg am Saint Michel ñuy muuru Saint Jean Saint yooyu boo ko déggee Saint Jean Saint Michel pi douze Pie neuf Saint Gabriel école yu baax a noonu mooy école yu baax wallahi lazim école yu baax nag waaye école yu tàmm ni laa école yu tàmm ni laa souvent école yooyu day dajale ni laa yi bu ñu dàqee fële dàq Modou dàq Paate dàq Demba dàq Aysa dàq Xadija ñu dajaloo foofu école yooyu nag mooy école tëll marajax toj marajo joj école yooyu boobu souvent école yu nelaar lay doon souvent moo tax pour nga gis ci ñi génn concours général c'est rare mooy école bandi yi école fàqmaan yi nekkoon euh, public ba di déranger ñu dàq leen ñoo fay daje xam naa ci dara parce que man mii école publique laa nekkoon di di sa grève bi dàq ma looloo ma indi école privée catholique. ma fekk fa sama yeneen morom ay gréviste ay ay ay bandi bandi fàqmaan ay booy fàqmaan yu doon grève ak yu doon taxawaalu ni laa di dàq fële ñoo fay dajaloo ñu classe classe gi nag nekk classe euh, euh, maala tane maala concours maala <laughs> donc bon école yi souvent école yu nilaar lay doon souvent quatre-vingt-dix pour cent école yu nilaar ñaar ñett ñoo ci nekk ñoo xam ni bon dañu leen indi foofu parce que dañoo bëgg ñu parce que école yu école yar la école pour yar la école pour yar la waaw ñun ñun jàng nañ ci école yi xam nañ tamit xam nañ nu mu demee quoi voilà souvent nilaar yee fay daje ñooy dem ci privé catholique yi ñoo fay dajaloo tout dina am nag exception quelque exception près on se connaît dans le ruq ñun ñëpp xamante nañ na débat bi waruloon sax kawe waruloon sax jug <laughs> waaw waruloon sax mënoon na mënoon na ñàkk daal mënoon na ñàkk waaw donc léegi léegi la gën a yàqu yàqu bu njëkk ba sax amoon na ay cours sant mari da a nii doon am ay programme francais programme français doon na am tamit euh, catéchisme moral et cetera yooyu na am quoi mais mais euh, Euh, ay ay yooyu ay éco ay école privée catholique la moo tax chaque jour ma leen il faut faire la part des choses cours Sainte Marie de Anne école privée catholique la woon xaw ma kañ bu dee daa changé mais loolu la woon dañu dañu def catéchisme et moral man mii jullit sax dañu doon def catéchisme catéchisme au nom du Père du Fils du Saint-Esprit amen et cetera mu ko maîtriser woon amun benn euh, sœur boo xam ne dafa yoroon oto oto mbott oto mbott dama doon yàkkamti oto mbott bi tilim pour ma raxasal ko ko pour mu jox ma bonbon ak ak ak kii yi lu mu tuddati ak meew yu weex yi ñuy mëq voilà mu yàkkamti nag dama ñëw rek ne ko <laughs> kii Ignace ci wàllu laa bi mu ma raxas bi yëpp mu jox ma tàngal yi nag mu dóoree tàngal ba ma ci tàngal bi mu jox ma ci euh, pëndëxu meew bi day sànn pëndëxu meew bi ma ma kii jëw yëpp taq ma ma jox ko ci kontaan <laughs> vraiment ñu respectante mu am ay mu am catéchisme am moral morale bi euh, jullit yi ñoo ko doon def catéchisme bi chrétien yi tout respecté ñuy muuru muuru ñuy sol croix sol croix ñoom Joseph Stone sol croix gars yi loolu problème boobu musu am France moo ñëw indi ay école am imposé ko Sénégal di imposé loi française bi biir Sénégal loolu la Sonko ne du fi am parce que pour euh, la bonne et simple raison fii souveraineté dañ koy am te ñu dañuy am jàmm ak salaam mënul ne ñëw suñu réew moom seen réew moom suñu réew mënul ne donc foofu question de souveraineté la woon mais newuloon sax si ay question de chrétien jullit xaw ma kële moo tëllee fële rek rajaxe kaas ak tël tël tël gars topp ci wuu France dala xë ñu avancé donc loolu c'est pas un débat sama gars yi ah voilà privé catholique ak école française bokkuñu privé catholique ak école française bokkuñu voilà privé catholique dafa nangu voile dafa nangu euh, euh, euh, croix lépp la nangu voilà nay leer nay leer nañ musuñu am problème boobu France fi dugal seen i école yàq sañu réew mi dugal fi seen i école imposé fi seen i programme imposé fi ba pare di forcer di forcer ñoom seen i loi biir Sénégal ñoo lànk ñoo bañ Sonko continue dans ça ñoo lànk ñoo bañ voilà les complexés parents complexés yi fa doon yóbbu seen doom tamit ñu ñu orienté leen parce que c'est des complexés c'est des aliénés culturels ñu ñu orienté leen voilà France doo ñu imposé yow voilà donc euh, c'est pas un problème de de jullit de chrétien pour ñu comprendre donc on avance ban ban ngeen fi yëkkatiwaat encore ah, <laughs> foog ñu dem ci seen sujet ban ngeen fi yëkkatiwaat hmm. xaaral ma xalaat réew mi de chaque jour ñu yëkkati benn ok beneen bu ñuy expliquer mooy comme ni ma leen ko waxee suñu nguur yi fi toog pour l'instant nee naa leen to toogu guñ toogu guñ moo tax lu leen Sonko di wax ne on a trouvé un pays en ruine et c'est tout à fait vrai mais ñoom pour l'instant dañuy nekk di dindikaay gaay ndànk-ndànk yéen xam ngeen ba léegi ni Sénégal ñoom Sonko dafaguñ luñ bëgg a def dafaguñ ko de dafaguñ ko de déedéet yéen xam ngeen loolu yéen xam ngeen nervi APR yaa ngi fees dell ci administration bi dell ci administration bi APR ñi ngi fees dell ñoo im ba ci biir palais waa APR a ngi fa xam nga waxoon naa leen ko dee leen gars yi raxasu guñ APR ñi ngi feex dell pale kañ ngeen dégg moo moo doon liggéey pale ñu dàq ko mais gars yi ñi ngi palais ba léegi ña doon liggéeyal Macky Sall ba léegi ñoo nekk pale ñett ñu yore programme palais bi sax waa waa APR la ñu yor programme palais bi waa APR lañ <laughs> donc palais laa wax palais bon waxagul moo leen ci administration bi de palais kay ba waa APR la ab Macky la ka fi bàyyi kay rédiger programme ba waa APR la secretaire général ba waa APR la

te ko appréhender ko mun koo lijjanti te pour ñu lijjanti ko nee naa leen foog ñu jaar étape assemblée nationale après ñu pare def lu naan réforme réformer lépp ku commencé nag liggéey foofu nag les sénégalais am droit commencé nag di pointer du droit Sonko wala Jomaay parce que jox nañ leen lépp ah jox nañ la jox nañ dugal nañ la ci terrain bi jox nañ la mayo jox nañ la bal arbitre bi sifflé na foofu la arbitre bi sifflé mais fu nekk nii ñoom Sonko dañ leen dugal ci terrain bi rek même équipe bi matagut dañoo dugg ci terrain bi fees fa waa APR fees fa dell sol ay yëre yu rouge xonk coy des ak deret ñoom ñu ñëw ak ay yëre yu vert ñu taxaw maillot yu vert donc buñ fa tegee bal bi de pare <laughs> mais yow da ngay gis benn waa APR bu dëgg bal bi dugal sañu camp parce que ñu ngi fees dell ci terrain bi terrain bi fu mu nekk nii mi ngi maanaam ñun suñu équipe am na ñu sol vert am na ñu sol marron beige ñuy fees dell jaxasoo waaw loolu fa nan la fa bi di siffler naan kaa leen football bal bi na fees suñu camp yi da gis waa APR bu ko bloc nga ne ko passe moom mu ne la xaaral ma ñëw nagul dëll ca camp ñu ne bii contre bii contre son camp donc ñoom ñu ngi nekk di génn prr eh génnale eh numéro 9 bi génnal waa APR la agat eh dugal booy échauffé wu eh prr numéro 7 bi eh génnal fële eh, kaay kaay kaay ak sa xonkaay taxawal donc noonu lañ nekk fu ne équipe bi lañu nekk di defar il faut équipe bi mat sëkk onze yi taxaw dëgër sol ay maillot yëpp vert fépp vert ñu teg bal bi tërë mooy après assemblée nationale bërëm bu boobaa nag ku lajji wala ku dóor si bal suñu poto dëkk bi tàkk mooy bu assemblée nationale bi ñu voté ba lépp tey <laughs> ku bloqué ba raté suñu bal bi ay eh, ku bloqué ba mandé sa carrière doo ko fekkee waxuma la yow rek waaye du yem ci yow yow say maam ak say bàjjan ak yëpp la ñuy rajaxe xam nga match bu jeex ñu dem taal seen kër ta rajaxe foofu dàq sa baay ak sa yaay ñuy taw di tëb di ay miir bu boobaa foofu la ñuy toll mais pour l' instant gars yi ñu ngi nekk ci instant yi nu ñu formé équipe bi équipe type bi équipe boo xam ne ñëpp vert bi lañ sol ba mu mat sëkk jóg për ñu sifflé xam nañ loi yi xam nañ règlement yi xam nañ lépp bu boobaa réformé nañ léegi ku nekk da ngay doxal mais fu mu nekk nii dara mu fii dara dëgg-dëgg gaa yi nañ ko wax te fu nekk nii débat bi dañ koy forcer rek mais boo leen seetloo du ay débat yu yu yu utile Sonko sax mooy saa yu génnee xaw a neexal tuuti <laughs> parce que Sonko xorom la ci cin li cin lu mu xat xat xat des ko xorom parce que seetlu naa ni Sonko rek mooy neexal débat bi Sonko mooy te te dafa bànni Sonko dafa am caay-caay day xool fenn rek dóor day génn rek chaque jour Sonko mënul génn te bàyyul tole comme se c'est moom yàlla moo ko def président rek même bu ko nekkul yàlla moo ko def président Diomaye dina génn wax kan mais ko Diomaye def na discours ba mu jeex taag kaay waxuñu ci génn na euh, euh, lu mu tëjee am amam Sonko day taxaw fee rek ne waaw mais bon nañ ci tëll rek ay commencé waaw waaw waaw ko opposition bi génn waaw xool leen saak ba yow xool leen dàll ya laay laay la laa laay laay la laa laay laay la laa ku sa bopp toj sa xam-xam réer damaa ba de gars yi toog nag ku nekk ñu ne ñu ne ñee borom xam-xam yi ñu wërtalee waaw non yaa ji c'est-à-dire non boo ko kii orientalement non non renversement non kii débat bi mel ni ay ay ay kajo kajo ku seex jox sa morom dara du am sens mu mu donc dafa mel ni Sonko moom dafa xam ne xaaral ma fëgg rek ñu ñu ñu topp ca ma ma avancé xaaral ma fëgg rek ñu topp ko ay kajo kajo xaaral ma sànni xaaral ma sànni dugub Sonko daa mel ni ko yor ay ay ay dugubam daal ma doon xaaral ma xool ba xam ñii ba léegi picc lay rek na nii sànni dugub ba rek cop cop cop cop cop cop cop cop cop cop cop bu gaay bi dugub bi commencé jeex rek mu tibbaat tuuti ne xaar xaar ma jox leen dugubu basi bi ñu dugg nekk ci boo gis nag télé yeeg réseaux sociaux yeeg ay ay genre télé internet ak comme ay comme ay kajo kajo kenn du la ci wax xam-xam kajo kajo kajo kajo ku la gën a mën a mëq dugub nga ne ma kii la wala Sonko moom moo yor maanaam moom mooy le règle le maître du moom daal moo jàpp gars yi di leen sànni dugub rek di leen sànni dugub ñooy mëq di yuux rek bu toogee tuuti rek coow na salaw bu génnaatee rek dana am ne ni xam naa na toogaat ba ci kanam mu ñëw xëppaat leen dugub ñett ñett ñu yi en attendant parce que tamit la nature a horreur du vide ñoom fu nekk nii ñi ngi xaar temps bi daw septembre après le 14 septembre gars yi dissout assemblée nationale ba ba teg ba <laughs> boobu soo ko dootu amati seen jot ba déclaration de de de politique générale ba taxaw ba réforme yi di commencé dugg ñuy voté ay loi ciat réew ma tàkk na départ pour ku dawul da ngay tardé la départ ba fa la sifflet ba sifflet ba après déclaration daane assemblée nationale déclaration de politique générale arbitre ba sifflet réforme yi commencé dugg ñuy voté assemblée nationale di changé mu nga gis ay réforme yuy pro yuy protéger ay ay lanceur d'alerte ay réforme yuy yuy yuy yar askan ay réforme yoo xam ne ci éducation bi ci santé bi di waddal gars yi <laughs> boobu mooy arbitre nee na boobu ku départul ñàkk nga train ba dem na billaay wallaay boobu maa ngi premier wagon tegale samay tànk ay ca na débat bi kawe eh, jox ma café foofu eh. yow sotti ma café yow yow cappuccino un bon cappuccino <laughs> nga xam ne ñu ñu nga wër yëpp bu xam-xam lañuy wax ok on parle de souveraineté nan la nit dëkk di amee souveraineté bu fekkee souveraineté alimentaire ak bu mooy souveraineté national souveraineté nan lañ koy ci débat bi kawe nag nga gis borom xam-xam yi taxaw e jox ma café en attendant euh, non pas de sucre di naan di waxtaan gars yi ñu ci wagon bi wagon de l' émergence de l' avancement gars yi ña ña nga ca ndaraga ña fàtte nañ leen fa ñun foofu lañ toll fu nekk nii loolu la ñu xaar de fu nekk ni moom dose café nekk ci train de l'émergence on avance point boobu débat inutile yi nag ay dàll dàll bii la sol pantalon bi dafa serré ay eh, non pantalon bi dafa gudd <laughs> man de ba loolu sax dégg naa ko ci télé billaay keenaan non ñoom Sonko dañ leen war a former ci ay français <laughs> yéen est-ce que dégg ngeen bi toog ci télé waaw non Sonko dañ ko war a former moo ak Diomaye lu ñu leen war a former non ci français quoi non parce que français dafa compliqué quoi moom pour moom mi ngi déggal gaynde gi déjà non français bi dafa compliqué lañ ko war a former ñu former leen ñoom ñoo ñoo xam français ñoom am ñu leen di orienté ci français bi <laughs> non loolu Sénégal la ko nit ñi mee wax ci plateau télé dem tëddi fop pop demul jàng anglais ñëwee ab interprète la lay tegal bu jigéen Cầm sao thế nào? Con này là mà lại đi cầm sao biết chưa? Ông muốn complain là ai? Quế bỏ sao? Kim Jong Un, boo demee tey jii Russie nga fekk Vladimir Poutine toog Russie la lay dóor ah ci ma ne ko ko interprété yaa xam xoolal mu ko lijjantee mu toggat nii. nga ñëw Sénégal ñu ne ñun sañ président yi dañoo war a wàcc trop trop dem di jàngi ay ay français quoi nuñ koy form formulation mooy <laughs> ñu ne kooku intellectuel la quoi non gars yi xamuñu ne ñun souveraineté la ñuy wëri ñi ak ñun bokkuñu monde ñun ñu ngi ci souveraineté ñun ñu ngi ci liberté ñi la ñoom ñu ñoom ñu ñu a takki chaîne ñoom ba léegi ñu ngi ci colonisation mantal spirituel kaay ñu takk leen seen ñu <laughs> comprendre ñu sax moo tax ñi suba la ñuy comprendre Sonko ko mu ne xamuñu ñun ñu ngi ci ay nationalisme souverainisme panafricanisme ñi la ñu ngi ci xoola occidentalisme occidentalisation ñi la ñu ngi ci ay colonisation néocolonialisme monde boobu lañ ne ñu ne ñuy jàngale ko keneen ki ma déggaat keneen beneen waay yoo xam ne na intellectuel mu toog ci bon boo xoolee Diomaye tubéy bu mu sol daf ko xaw ëpp quoi da ko xaw a yoon na xool nu muy solee tubéy bi quoi <laughs> ma xool bu tubéyu tubéyu euh, président français bi ma ngay wàcc ci suuf ba dàll yi dafa muur dàll yi ma xool yeneen président yi ñoom ñëpp a ngi sol ngandam maam yi buvante seen tubéy yi di laal ba muur dàll yi ba doo xam ban dàll la <laughs> ñu ne ay borom bopp lañ dañu toog ci télé nii man ma doon te bu doon tey bu ma doon borom boromu télé toog ci sama télé di seetaan gis kenn ku taxaw di wax yu mel noonu ci saa sa laa lay bindal da dàq renvoyé immédiatement et sans condition te du ma la fay benn salaire man a yow ba géej gi di fer yaa taxaw sama télé sénégalais di la seetaan amoo looy wax tu xool tubéy waa ji wax wàcc naam kawe na wala kii xoolal dama lay dàq nañ dem ba cour de la haie la fay parce que yow da ngaa saaga da ngaa insulté mémoire sénégalais yi da nga insulté sama télé bi ma la teg amul lenn loo ci xalaat xool Sénégal amul looy xalaat xool ay tubéy bu wàcc ak tubéy bu yéeg ak tubéy bu gine te kenn ci ñoom amul tubéy bu non ndaw des fois nag booy dangay ngay déglu ñoon sax doo am envie doon sénégalais caata te ñooñu ñoo fi nekk nag ay journalistes mercenaires de la plume une honte pour corporation bi billahi wallahi wa taala da ngay tiit sax da nii lan la des vendus des des affamés yoo xam ni ils sont prêts trois troquer leurs intégrité te sans rien du tout seen yoon naw ci di ternir l'image noble de la profession c'est du jamais vu booy non réew mi yàqu na nag moo tax ñi ngi xaar le ministre euh, de la communication lu mu ñu waxoon def ne woon dafay assainir euh, Euh, euh, la presse sénégalaise ñu ngi koy xaar ci réforme boobu bu baax a baax a baax billaahi nañu tegal affaire yi tamit ñun ñu ngi dund lu metti métte métti dañuy yow gars yi di ñu yàq sañu bopp yi di ci wax di n'importe quoi ngir yàlla na assainir milieu bi quoi waaw ministre de de de de la communication de des des euh, intic et cetera et cetera kii Sall nañu dimbalawaay vraiment li ñu gis fii moom euh, sonn nañ trop trop trop trop. prostitution intellectuelle mi ngi envahir partout day sappe sax morale bi même les les les fondements euh, de de de de l'information sincèrement ñi ngi subir ñi ngi ñaan Aliou Sall lu mu ñu waxoon bam ñu ko bam ko annoncé ñëpp a fecc ñëpp a kontaan Aliou Sall. jàppale ñu waay jàppale ñu jàppale ñu lillahi wa rasuli dëkk mënul nekk dëkku njaaba njalla dëpp caapa yaasin ku yeewu jóg yor sub journal ku yeewu jóg ne dangay bind ku yeewu jóg toog ci média di wax jàppale leen ñu ngir yàlla lillahi wa rasul jàppale leen parce que sama gars yi dañoo pare pour liggéey dañoo pare pour liggéey de yéen xam ngeen loolu dañoo pare pour liggéey xam naa nag lenn moom xam naa mooy lu ma leen wax départ bi moom incha allah après assemblée nationale bi ba ñu am majorité bi bu garanti réew mi dina dox réew mi moom dina dox moom ci nii mbaa ci ne dina dox de voilà mm, jamono ji nag siraat la ñuy jéggi nii jamono ji metti na metti boo xam ne ñu ngi jéggi siraat siraat mooy gaa yaa ngi fi toog Sénégal ña gaayee nañu nekkoon rek lañ ne ña nga toog ci bureau ya nanguñu liggéey chef yi liggéeyuñu corruption indiscipline désordre total partout Sénégal a ngi mel ni càppa yaasin ngay mëq ngi mëq ña fa des a ngi profité di ci rawale gaa yaa ngi daw affaire kenn xamul Sénégal lu muy nur kenn xamul lu Sénégal di nur indiscipline total total ci tali yi ci bureau yi ci mbedd mi ci oto yi ci garage yi indiscipline total total nit yaa ngi dee comme pas possible mbëkk oto yi rëng-rëng tëll quatre morts chaque semaine ngeen dégg plus de vingt morts ñiy rey doomu aadama yi ci rewande rewande totalitaire rewande bu musut bu mu bu jéggi dayoo chauffeur buy nalaw chauffeur buy accident yaa ngi mel ni tulleeg male moo fi musa am nag beesul de beesul de Sénégal les routes sont très étroites tuuti nañ benn xeetu tuuti ñaari oto sax mënuñu fa daw oto yi yàqu nañu maxe benn xeetu maxe boo xam ni yéen ñëpp gis ngeen oto yi kalandoo yi da ngay gis ñaari fiil la ñuy teg cog cog cog cog cog cog cog wàcc leen pousse ma moo moo am Sénégal car rapide yi cog cog cog cog muy muy tàkk étincelle nga koy gis nii nga toog ci kanam moteur bi balaa ngaa génn laa la sa sa sa sa sa taat yàqu ñoom Sénégal koo ci mi nga yoro hémorragie interne externe affaire sa sa yi daf ay donju ndax ndox moteur bi ni muy tàngee ci sa yi di boy nga mel ni ku toog ci safara jaxanama parc euh, automobilier bi baaxul oto baaxuñu oto yee daw nit yi réew nañ benn xeetu réew boo xam ni jégg na dayoo donc loolu lépp lañ ko war a lijjanti pour l'instant wala Sénégal dañ ko war a defar ni ñu ko war a defaree mooy encore une fois corruption bi netul leeg man le bërki dem gis ngeen policiers yi dem jàpp loolu noonu moom fa du lu bees policiers yi dem jàpp ay maliens sàcc ci deux cent millions bokk na la pour war a séddoo ñi nga doon jàppale nii la demee corruption bi ne tulle ak màlle nee naa leen yar euh, désordre bi nag jéggi na dayoo donc lii il faut mu am ay reform te réforme yooyu sanction yu saf lay àndal yu saf sàpp lay àndal dinaa leen wax dara buñ la waxee defaral réew man tey buñ ma waxoon ma jiite Sénégal ak ma jiite Canada du ñu bokk ay modèle yu ma leen war a jiite parce que bu dee Canada ñëw naa fekk benn peuple bu instruite benn peuple bu ñu yar bu yàgg bu discipliné bu organiser bu poli boo xam ne dañ leen dañ leen takkal ay ER ni imposer leen ay loi ak ay règlement et ñu si dox ñooñu boo ñëwee mun nga leen tabaxal ay autoroute ay ay euh, ay péage ay pont ay loo leen tabaxal waree fa amul benn problème bul tiit ñu ko yàq mais bu dee Sénégal nag buñ mënee woon jiite leen sama première première politique mooy yar gis nga réew mi tant yaroo leen Sénégal nee naa leen malaaka boo fi indi bu ko réussir tant que yaroo leen réew mi ku xool xam ni réew mi du problème mu defar réew mi problème am nit la nit réew mi moo jafee gis nit réew mi moo am problème mu nit bu rëy rëy rëy boo defaree réew mi te defaroo nit yi nit yi yàq réew mi bàyyil réew mi bul ma defar defaral nit yi boo defaree nit yi ñu defar réew mi déggu leen ma de Sénégal bu doon tey fii Canada réew mi laa defar du ma defar nit yi parce que nit yi defaroo ne mais bu ñu ma yóbbee Sénégal du ma defar réew mi nit yi laa defar sama politique yépp ci nit yi laa koy concentré te dinaa defar réew mi te du ma ko yëg te du ma du metti jàpp rek du dóor nga gaare foo war ta ma dóor la euh, dix mille dix mille yoo war a fay wala quinze mille yu saf-saf topp la nag ba parce que nangu sa oto sax ja xaj na ci nangu sa permis nangu sa oto dix mille boo rëkkee kenn gën dix mu yuuxu wéy sama sax tuuti ma day dépense moo waroon dépense dama koo fayee fa ñu ngi jël sama kër ñu ngi bëgg a hypothéquer keneen ki tax ah sa kër lañ jóg loo def non damaa gaare fu mu war ta gaare dégg nga léegi état bi day fees dell te doo ci wax ñoom ngay fëgg ñuy delloo état bi waaw di nga leen di defaral day neex di dama bëgg a defar benn tali moo commencé oto yi ñu fi accidenté wala ñu fiy dawaleel nii wala ñu fi dawaleel moo commencé di jël rëkk naa moodu nangu ci moom dix mille teg rëkk naa faatu rangu ci quinze mille teg rëkk naa ami nangu ci sept mille teg rëkk naa Malick nangu ci dix mille teg ñaata la calculer la ñaata la donc noonu laay defaree réew mi réew mi du ma gël dara ci kees gi ñoom laay loqati seen poos di ko ci def ñoom ci yar ak teggin nag billahi deux mois laa may réew mi ne salaw cooc corne sax doo ko déggati corne sax c'est interdit corne reewande nii corné kon réew mi dina defaru te du ma ko defar nit yi laay defar réew mi defaru bu nit yi defaroo rek réew mi defaru kon nit yi laay yar yar bu saf saf bu bu ku may dóor dëkk bi yëpp ko yëg dama leen di yar ci kenn mbéj bi du ay mbéju tak tar dëkk bi yëpp ne allahu akbar lan la lu xew bomb ñu ne ah ci mbéj mbéj mbéj nit lañ mbéj Hmm? koo mbéj ah de la ilaha illallah man kay sama kër dama doon nalaw mbéj mee ma yee lu mu defati ah dafa gaare fu mu warta gaare dëkk bi yëpp dégg ne mbéj na ko waaje ba mu xëm ma nga hôpital di xëmmaliku di xëm est-ce que est-ce que du fa dee waaw dëkk bi yëpp salaw la lay def barke alxuraan salaw information bi jàll waa jaa ngi hôpital entre la vie et la mort état bee comme mbéj mbéj boo xam ni mu ngi ci dee billahi ñoom ñëpp a lu ñuy lu mu def ñu explique lu mu def dëkk bi na moo tax man moom ku ma waxoon ma jiite réew mii sama politique euh, euh, déclaration de politique générale <laughs> lépp lu réew mi rek réforme yëpp dëkk bi nan laa yare Jean nan laa yaree Pierre nan laa yaree Cheikh nan laa yaree Ali nan laa yaree Moussa nan laa leen di yaree léegi boobu waa dëkk bi dañuy xam ne kii déclaration de guerre la def ak ñun réew mi ne salaw état bi ñëw taxaw teg ay affaires yoo xam ne ñu ñëpp ñu comme ay xaju berge allemand yi ñu tasaare ci réew mi police vingt 24 di daw H24 mel ni damay dem indi cent mille auto police ak gendarmerie def ci essence ba mu fees wër leen de acca xaalis na mu indil xaalis nag amul corruption moom am ñeneen ñu leen topp ñeneen ñu leen topp tamit di surveiller yeneen policiers comme nu mu amee fii caméra ak ñëpp ak surveillance voilà billaahi wallaahi bu ñu ko defee benn fan réew mi ne cocc benn fan benn fan mais réew mii tant que ñi ngi koy defar ci ay kii defar na ay indil na leen ay BRT indil na leen waaye xoolal même BRT bi sax lu euh, mu tudd bi <laughs> lan moo tax mu tane <laughs> lan moo tax terre bi tane yéen ngeen foog ne lan la terre bi premier waaja fa tuuroon ñamu mbaam boobu la fa ñamu mbaam gëj yar ba dal tël tël bu ca kaso ba <laughs> yar boobu tamit sax neexuloon mais yar la de moo tax ñamu mbaam dugutu fa lekk dugutu fa naan dugutu fa ba pare ñu feesal ko dell nag ak ay gendarme ñu ne ñu fees dell ci terre bi rëkkal mbaam rëkk rek rëkkal mbaam rëkk boo rëkkul ma rëkk boo rëkkee ma rëkk rëkkal balaa ma laa rëkk nga daw dëkk ak dëkk rek bu sénégalais yi na cocc dañoo ragal police nag ak gendarme ñeme yàlla ragal alkaati jaana daag ñu jël lépp feesal terre bi yëpp ay policier moo tax ñoom ñëpp ne cocc nag ku tourné gi gendarme bu taxaw na eh, eh, eh, waaw toogaatal nga toog jaana nii lañ ko jàppee donc loolu il faut mu am ay comité de suivi jàpp sénégalais boo leen yaree réew mi yaru loo leen defaral te yaroo leen ñu yàqu dañuy dem làmb seen mbër daanu ñu yanu chaise bu ñu toogoon dóorante ko vum vum vum vum chaque jour saa yu amee chaise yëpp toj gis nga chaise yu chaise laaj leen ñaatoon lañ toj chaise yi ñoom même ñoom ñoom seen biir bureau politique bi sax bu ñu dajaloo dañuy dóorante ay chaise après fu ñu dajantoo dóorante ay chaise bu ñu demee làmb mu ñu dóor sa mbër nga yendu sa sées wéll tag <laughs> waay ndaw ah d'accord dem soo yoon daal yoon nii la daal ah sa mbër lañ daane rek nga yendu sées bu nga toogoon yow yow yow tag nga ci xalaat rek dóor tëll mu tag ñu xool foofu yëpp sées yëpp sées yu jaune yëpp a toj sées yu yëpp a toj sées yu nangam yëpp a toj <laughs> ay doo génnee noonu loolu day yomb ñibbi nga nii dem tëddi na la quoi dara amul d'accord ah, da ngaa réew nii daal da nga réew quoi da daal d'accord <laughs> amul benn problème dinaa la woon ku réew nan lay mel ba xam yaa réew wala maa réew man mi yor état il faut ñu toll foofu il faut ñu am ñu dindi yërmande gi ñu am ci sénégalais yi ci bàyyi leen ñuy def lu leen neex ñu xeeñ salte tilim nga gis ku lekk banaanam wàcc vitre otom sànni banaana bi ci mbedd mi nga gis ku yëy caaf jënd caaf ñëw boo xam yor sa benn xoolal di di daaw naan nii xa xaaj ngi yor jot xoolal di yëy sa ci boppam. Eh, eh, wax ak waa toog sa ah waaw waaw ko waaj non non non man kat ah bon eh, non kii bi ah da ko laal laal ko oh ah xaaj oh, oh, mbëkk loolu ñuy dee. nga génn oh, kat dee nañ. lan la dañuy caaf di waxtaan ak ku nekk ci wet gi yor benn volant benn loxo bi tànk bi mu tegee ko ne la sa waay sa lu ne Sénégal yéen xam ngeen ko yar leen ñii ñuus leen leen ba ñu saw seen tubay yi yar leen ñii Sonko yaral ñii ñuus leen leen ba ñu puub seen tubay yi kese mooy defar réew mi bu dul loolu loo leen fi def dañ koy yàq seen mag mag Abdoulaye Wade leen ndax tabax fuuf la mu tabaxoon yëpp yàqal nañ ko Macky Sall leen mu mënu leen fi indiwaat terre ndax am na fi mënu leen fi indiwaat BRT ndax am na fi mënu leen fi indiwaat stade ndax am na fi mu mënu luñ fi deful ngeen fi war a def mooy ñoom mosuñu yar peuple bi yar leen peuple bi bu leen leen indil terre bu leen leen indil BRT bu leen leen indil stade ñu leen dàq a construire foofu ab Wade la dàq a construire fii kuy construire lépp lañ ko yàqal balaa Macky Sall ñëw fekk nañ yàq nañ ko Abdoulaye Wade ba yëpp Macky Sall ñëw def dañ ñu ngi nii la ko ko yàqal donc bàyyi leen bu leen leen defaral dara yar leen leen di loqati ci seen poste di def kese loolu rek mooy defar Sénégal sinon loolu leen fi defar rek dañ dañ leen di dañ leen di def comme ñu def wa Wade ak Macky Sall billaay wallaay boo leen yaakaaree ne ay génn nii di defar ay stade ak yooyu gars yi bëgg <laughs> loolu jaaxalutu leen de defar leen sénégalais yi loolu la kenn réussiragul yar leen sénégalais yi rewande bi ëpp na xamadi bi ëpp na salte bi ëpp na salte nañ réew nañ corruption aggravante désordonné nañ yar leen sénégalais yi boo leen bëggee réew mi defaru yar leen sénégalais yi boo leen bëggee réew mi jaar yoon defar leen sénégalais yi bu leen defar réew mi defar leen sénégalais yi defar leen sénégalais yi à travers ay politique boo xam ne buy yar askan ngeen takk bu dëgër kët ngeen defar Sénégal loolu lañ leen di xaar seen déclaration de politique générale loolu lañuy xaar bu leen ñëw naan ñu ay dañuy defar ay kaniwoo de bu leen ñëw naan dañuy defar ay ay vidange force de déedéet dimbale leen ñu rek dimbale leen ñu rek yooyu yëpp am nañ ko defar leen sénégalais yi defar leen sénégalais yi lool lañ leen di xaaree déclaration de politique générale réforme yi pour defar sénégalais bi la tabax leen un un nouveau type de sénégalais tabax leen sénégalais bu patriote bu bëgg réewam tabax leen sénégalais bu gëm boppam bu bëgg réewam bu doon patriote boo xam ne intérêt personnel yittalatu ko intérêt collectif lay dox defar leen sénégalais boobu te sénégalais boobu lu mën a nekk la loolu foofu lañ leen di xaaree parce que li ñu gis nii boo leen ko deful darul fi jot ba léegi sàcc rek la def foo bureau boo tugg tey jii corruption bi aggravante fépp fépp fépp soxor bi bon bi iñaan bi yàqante bi am na ñoo xam ne waa APR lañ seeni chef du APR ñu jël fay ay journaliste gisul saa yoon yow gis benn directeur bu ñuy attaqué <laughs> ngeen foog ni ñan saa yu leen yeewoo gis ab directeur APR bu ñuy attaqué ci presse bi de bu leen topp de seeni moroomu APR ñoo suulu ci masse bi di bugg leen tëbal pour toog boo leen demee hôpital Ndaamaatu bu Tuubaa ka nga xam ne moo géré intendance bi di faatu buntu buy doon dem jëli ci ceebu taalibe yi lañ doon jox sëriñ bi di ko yóbbu ci hôpital ba di fa gañe ay marché xeexal Amadou baax cent pour cent tey mi ngi nekk ko fa ñu ko yàq bu naqar mi ngi jéem moom mooy fay moom mooy fay journal yeeg yooyu pour ñu yàq directeur ba pour moom mu doon directrice noonu la ñu mel nag ñu ngi fex dal nag di lekkante pour ñoom ñoom ñoom ñu APR léegi APR bi day suulu financé pour tëbal euh, euh, euh, kii ba directeur ba nga xam ne ni moom la mel génn moom nag fu nekk nii ca loolu la ñu nekk foog na ñun comprendre nañu wala ñun xamuñu xam nañ lépp xam nañ lépp salaw tek tekkaaral ña ngay buuxante pour dem wër Sonko ak Jomaay ña ngay buuxante ñoom ñëpp mel ni ñu musul laale pour nu ñu mën a demee APR loolu moo am fépp fépp foo dem c'est la guerre entre les gens de de de même pas Amadou Ba de Macky Sall de Amadou Ba de l'APR ak waa PASTEF te waa APR ñoo ëpp doole pour les l'instant fépp fu ñu dem organisation bi. ba Touba la dernière fois ña fa nekk ñu jox leen budget quatre vingt pour cent waa APR la ñu dañuy buuxante jamono ji buux buux fu ne ni buuxantee fi ne buuxante fi toog foo dugg foo dem ña nga buuxante toog ñoom ñooy toog nag installé wu waa APR lañ te loolu day dem ba frustré waa waa Pastef yi amuñu accès ci fenn ñi am accès waa APR yi lañ ñoo am accès ci suñuy leaders yi ñoo am accès ci suñuy dirigeants yi ñoo am ñoo am accès ñoo nekk ci système ba ñoo positionné wu taxaw attention ñoom ñëpp xam nañ leen seen démb yàggul defagul fi at ñaari at ñu ngi xam nañ leen bu baax a baax a baax a baax baax xam nañ leen mënuñu fi manigancé ba toogaat fi mënuñu fi manigancé ba toog ba ba doon fi leneen ñoom ñëpp summi nañ seen yëre assassin ya ñoom ñëpp summi nañ seen yëre complice dem sol yu weex la ñëw toog nag mel ni ñu ci bokkul woon xàmme nañ leen seeni jëf mi ngi fi tegu gis nañ leen te mënuñu fi manigancé te ñoom en complicité ak ay journaliste yu ñuy fay ñuy yàq ñu ngi ci direction yëpp ñu ngi fekk dell fépp fépp foo dem foo dem moment bi nga xam ni ñoom ñu ngi euh, entourage yu jomaay ñu ngi dàq benn benn euh, maarañas di ko bu max wala di bu max benn benn cheikh euh, benn kii Cheikh Baara Ndiaye laaj ñaata waa APR ñoo taxaw noonu déggu leen ma de dama moment bu ñuy bu benn Cheikh Baara Ndiaye am ñu tax ne waaw waaw noonu la non nekkatul ñu xare xarit na am na junni APR yu wër Diomaye saa yu ñu bu maxee Cheikh Baara Ndiaye ñu bu max euh, euh, Mara Niass mais barki démb rek dem nañ gis ngeen fi euh, chaque jour booy bii nii le sniper le sniper xaw ma sniper xaw ma de de sàll Sall buy taxaw ak Diomaye nii mais loolu du fierté bu fekkoon ni ba estafu jomaay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nanguñu kenn kon kay <laughs> bu ñu daqee bu max benn Cheikh Bara Ndiaye wala bu max benn Mara Niass nañ bu max benn APR bu nekk foofu boo xam ne ñëpp xamee nañ ni kii ne taxaw fi waa APR la kee taxaw fee waa APR la kee taxaw ne waa APR la boobu lay affaire bi doog a juste boobu la affaire bi di doog a juste ñun gis nañ lépp ñaaxare ñaata yoon tey bu war a bu mënoon rey jomaay tey ñaata ñaata yoon lay taxaw nii ak jomaay ñaata yoon léegi ki bàyyi ñaaxariñ mu war a taxaw noonu ak jomaay lan moo tax mu war a mën a dàq euh, Cheikh Baara Ndiaye laaj leen ko ko quoi lan moo tax léegi man lu lan la Cheikh Baara Ndiaye def ba moom ñaaxarañ mi am possibilité jàkkaarloog nii joomaay di ko joxe loxo di ko xoola mu mu ñëwaat ci beneen voyage mu ñu jàkkaarloog moom nu mu def am possibilité boobu lan moo tax euh, euh, kii Cheikh Baara Ndiaye mënu ko am c'est une injustice c'est une injustice énormissime c'est pas sérieux c'est pas de sérieux loolu moo tax Sénégal dañoo mujjee sax xaddi seetlu leen loolu première fois bu ñëpp ñëwee def live ñu gis ñaa xarañ lu ko ñu foog ni changé na jomaay bu mu mujjee demaat ni ñaa xarañ a ngi taxaw <laughs> ñaa xarañ senaaf taxawaat ni après sénégalais dañoo découragé dañ ne protocole jomaay bii dañoo yabaate rek ñoom daal dañoo am kumba am nday ak kumba amul nday ko dañoo am kumba am nday te am na luñ si dégg am na luñ ciy dégg nag de dinañ ci yegg mais dama ne li ñuy def du ngóora bu Cheikh Baara Ndiaye taxee ñu bu max jënd lu fii nii benn maaraañas ñi jënd jënd lu ñu ñoo leen gëmoon ñoo gëmoon jomaay ña leen wër ñooñu ñëpp ay dëmb lañu mais nag bu dee dëkk dëkk dëkku dëgg la ni ñuy def bay bàyyi ñoom protocole boobu di bàyyi ki nga xam ne moom mooy ñaaxariñ euh, euh, nuñ ko bàyyee noonu noonu la ñu waroon bàyyee benn Cheikh Omar Cheikh Baara Ndiaye noonu la ñu noonu waroon mun a bàyyi benn maarañes loolu du dëgg du yoon et je le dis ak protocole jomaay bi te wax naa leen ko ñoo dàq liir nag vu lu aju xam nañ bu baax lañ leen di wax je les ai interpellés dans euh, sur ça nee naa leen yéen boo leen def naa yéen a gën a gàcceel sénégalais yéen protocole jomaay bi yéen a gën a gàcceel sénégalais yi parce que vous êtes injuste montre ngeen ay preuve yu injuste saa yoo leen poussé benn pastefien am na benn voix APR bu bu bu bu ngeen nangul mu nekk seen wet vous êtes injuste il faut ñu ratisser aussi large palais ba ay corrompu ñu ngi fekk dal ci biir palais ba ay waa APR ñu ngi fekk dal biir palais boobu noonu te ñoom ñooy liggéey lii lépp boo leen mayee ki nga xam ne moom mooy ñaaxarañ mu mun a taxaw ak jomaay taxawaat ak jomaay taxawaat ak jomaay noonu ngeen war a mun a bàyyeekoon Cheikh baara njaay ban plan ngeen ci am ñun Cheikh Bara Ndiaye moo ñu gënal Cheikh Bara Ndiaye taxaw jomaay moo ñu gënal Mara Niass taxaw jomaay moo ñu gënal jël nañ fi seen i guddi guddi di ñaanal di ñaanal Sonko ak jomaay Cheikh Bara def na fi wàcce na fi kaamil junni yoon ak juróom-ñaar dajale boroom xam-xam yi yëpp ñu dajaloo ñuy wàcce kaamil ngir ngir Sonko ngir jomaay di ñaanal di def lu ne boobu boobu le sniper mi ngi taxaw di topp ñu le vous n'avez pas droit à ça vous pas droit à protocole boobu ñuy wax noonu dañu ne soyez sérieux mënu leen bëgg a taxaw ne da ngeen di jiite benn da ngeen di couvrir un président di bàyyi waa APR ñu am accès ci moom di jéem a jaay ay fulla na di dàq waa waa Pastef yi vous n'avez pas droit image bu salté la bu salte Sénégalais yi dañ leen a jéppi yéen yéen protocole bi dañ leen a jéppi duñ wax seen wax sax dañ leen a jëppi te vous allez mettre Diomaye en mal avec cette société la ñi ñi doon rayante pour moom bu bu amul fulay boppam Macky Sall doonul nangu loolu protocole mel ni benn xale seen biir ñu ñu mel ni ay yàlla duñu dara Macky Sall boo am na loo xam boo ko doon def dafa am fulloon nag boo doon def yow dana eh, eh, bàyyi ko gis nañ ko fi ba tàyyi Ablaye Wade wàcc na fi ci suufu géej dem di xooli fàqmaan yi protocole bi ñu wax daf la eh, waaye taxaw leen na yéen ne fàqmaan yi kaay leen seetaanu leen ko fi fàqmaan yi yëpp wër ko après bu jomaay ñi bëgg a dëmm dëmm nu nu extraordinaire mel ñuy naaw duñu naaw duñu def dara ay nit lañu yàpp ak deret nekk leen nit protocole li ngeen di def du dëgg du yoon lu ngeen nangu ba mën a ñaaxarañ di taxaw jomaay saa ko neexee ak bu ko neexee noonu ngeen war a mën a nangu tamit kii nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye possibilité bu kee am la kii am loolu mooy dëgg dañu waxante dëgg ñii ñuy yàlla duñu yenentu ñu fi teg te ils vont mettre jomaay en mal ak ak ay nitam ñi dañoo mën a sax c'est quoi ce bordel là ab protocole boo xam ni fa leen neex ñuy soof soof loo ko jënn jënnelu ñëw bëgg a jël jomaay def ko benn liir quoi mel ni jomaay ab dof la bu xamul dara non non fi lay teg tànk fi lay taxaw duñu tuus duñu tuus duñu dara maa leen ko wax duñu dara protocole bi laa wax ay nitu neen lañ ñu tuus ëpp ñu jomaay xam-xam Ablaye Wade wàcc na ci suufu géej jël fàqmaan yi Macky Sall da doon dugal otoom di dox di tax di taxawaalu ay eh, borom caaf ay eh, jaay caaf yi ay eh, jaay ndox yow ay nangam bu jamaay ñu mel ni ku ñu yor benn liir quoi benn liir bu xamul dara benn dof ñu jamaay non bul wax yow baa ñu toroxal say nit xaa ñu bu max ay nitu jamaay yi sànni sa xaj waa waa waa affaire yi di ko dagg di monté <laughs> ñaan jamaay protocole la du gàtt Abdou Diouf da doon génn di gis ak nit yi Abdoulaye Wade da doon génn di gis ak nit yi Macky Sall da doon génn di gis ak nit yi des nga jàpp nit a mu ne eh, bàyyi leen ko ñu bàyyi ko. lan moo tax ñu bëgg jël jomaay jomaay bu ko def benn benn liir quoi benn liir bu xamul tous bu toog ni eh, non protocole bi la protocole bi la mel ni ay ay yu yàlla yónni ñu wàccee ci asamaan si ñu taxaw du ñu dara. soyez respectueux ñu ngeen di bàyyee xarañ muy muy am accès ci jomaay noonu ngeen war a bàyyi benn Cheikh Bara Ndiaye. loolu mooy dëgg nañ leen ko wax ñii dinañ yàqal jomaay laa protocole boobu du protocole tous tous ki leen gënoon tàng fuuf dee na yàlla rey na ko yóbbu na ko te pourtant kooku ànd na fekk Abdou Diouf Abdou da doon gisante ku ko neex bàyyi leen lay wax kooku nekk na fekk Ablaye Wade Ablaye Wade jël ko mu koy garder c'est le plus fort de protocole bu mu am Sénégal mooy seen bàyyi te Ablaye Wade da doon gis ku ko neex bàyyi leen ko lay wax Macky Sall bu mu ñëwee jël na ko ci la faatoo Macky Sall bu mu ànd ak moom dootoon Macky Sall moo am dernier mot rek bàyyi leen ko mais jomaay nag ñu jël benn jomaay man ma gisee jomaay seen biir sax ñu jël benn jomaay def ko benn liir ko ku xamul dara même buñ gisee ku ñu toroxal benn nitu jomaay sax ñu ñu ne jomaay yow bu xoo wax xoola géej rek xoola géej ñu toroxal nitu jomaay def jamaay benn liir quoi benn xaw xamoo dara taxaw rek ñu ñuy wër la quoi ñuy ji dëmb dëmb lu eh, ki nga la Mara eh, taxawal ne waaw kii Cheikh Bara taxawal ne Bass Cheikh Bara Ndiaye jamaay eh, ne di lappax lappaxi ci digg bi moom tamit mel ni ko xamul dara xulli bul yi loolu jamaay bañal loolu lankal ñii duñu dara ay nit kese lañ duñu tuus bañal loolu am nga droit amul fu ñu bind na protocole bi ñooy sa yàlla ak sa yonantu am nga droit gis ku la neex am nga droit yow yaay seen baay am nga droit jël ku la neex ne bàyyi leen kii aw amul benn danger bàyyil Cheikh Baara Ndiaye mu ñëw amul lu ma yàqal bul ko bu bul ko gaañ bàyyil Cheikh Baara Ndiaye mu ñëw lan la daf may Cheikh Baara Ndiaye daf may rey ma du tey la may rey bàyyil Cheikh Baara mu ñëw bàyyil kii mu ñëw et après loolu mooy dëgg mais ñu bëgg a ñëw ba def def ko benn benn marionnette quoi jël benn jamaay bu ko def benn genre marionnette ci biir affaire wër ko nii xam dëmm dëmm lu jinn jinn lu amul benn possibilité du wax bu gisee ñu toroxal ay nitam sax mu ñee waa affaire di ree <laughs> nit ki da ngay imposer sa suprématie voilà da ngay imposer ak nu mun a mel da ngay imposer sa parce que yaa leen jiite ñoom jiite wuñ la amul benn protocole eh, constitution bi wax ne protocole moo mun président président mooy jël protocole donc président moo jiite xam na ñu koy gaañ ak ñu ko dul gaañ xam na ñu koy rey ñu ko dul rey mais lu mu bu fekkoon sax ñëpp lañ yemale mais mais pourquoi yamalewuñ leen lan moo tax yemale leen amul benn sénégalais bu kontaan ci di gis ñaaxarañ chaque jour mu taxaw président bi saa yu saa yu président bi génnee su ñaaxare taxaw nii ak président bi mais bu président bi ñëwee Sénégal mais Cheikh Bara Ndiaye <laughs> ñu bu max ca xaj Mara ñu bu max ca xaj il gagne quoi dans ça non expliquez-moi quoi il gagne quoi dans ça il gagne quoi dans ça mais même le président français da koy def est-ce que Sénégal ñoo gën a dëgër président français bi Macron la benn booy woo fee rek waaye Macron mu ne eh, bàyyi leen ko ma ñëw mu ñëw booy bi ne ko mais yow lu tax yow nga def li kii ah tëll nde mba Macron ne ah léegi ñoom ñoo gën a tàng protocole Macron sax def na loolu mais ñëpp a gis seen monde bi yëpp mais Vladimir Poutine day génn di nuyu ko neex mais lan moo Sénégal gars yi a mystifier affaire yi je comprends pas quoi yëgal affaire bi asamaan mel ni yàlla moo yónni ay ay ay malaaka quoi protégé le président français benn boy moo ko woo c'est Macron Obama da def day ñëw nuyu gars mais am nañ ay protocole mais jomaay jomaay rek lañ bëgg a def xale ñi ma wuñ ko def protocole bii ñimewuñ ko def kenn ñimewu ko def Abdou Diouf protocole bu mel ni sa yàlla ñi bu max sa nit ak toroxal seen nit nga taxaw ñaan la wa wa wa non pro xala bugg la fooyee quoi non protocole protocole yow bul wax de wax yow jamaa xoolal ko xoolal kaw jamaa ne nii moom la bu jamaa xoolal kaw de protocole bi la protocole bi la yàllaa ñu yónni yo xool jamaa naan nii moom xool ñi tël waa affaire fees dell kenn laa la leen mën a waaw Diomaye Diomaye ne la bàyyi li nga def bàyyi li nga def ñii dañ ay extraterrestre ñii dañ la jaxase ak say nit bàyyi li nga def nga arrête pourquoi ngay dóore wala ngay bu ma la mooy lii eh kaay boo naka mu nice jaajëf waay ok on continue lépp jàmm yaa ngi fi ah nice ok jaajëf waay lan la yàq Abdou Diouf da koy def def na ko Abdoulaye Wade def na ko fi président français bàyyi na fi protocole am dem bàyyi fi protocole am dem nuyu nit mu mbéj ko mais lan moo tax ñu jàpp jomaay bu ko def xale lan moo tax ñu jàpp jomaay bu ko def liir lan moo tax bi jàpp jomaay di ko woye di loo bu fekkee ñaa xarañ la ñu nangul mu ñëw jege bu dee ay nitam la ñu toroxal naan jomaay xoolal géej xoolal géej bul wax jomaay itam ci lambar lambar bu ne xale dina ma déglu nag bañal loolu gra bañal faire loolu bañal gaa yi def la xale protocole boobu noonu du yaay seen baay yow lañu fal faluñu leen bañal ñu def la xale bañal ñu jaxasal ak say nit bañal loolu amul fu loi bi wax ne xoolal géej bi ñu toroxal say nit doonal leader taxaw doonal leader taxaw bu ñu toroxal nga ne eh, yaay arrêté seen baay arrêté ak eh, kenn la Cheikh Bara naka mu nice eh, yaa ngi fi ah mais mi ngi cool <laughs> jaajëf dóor loxo wala dañ koy interdire yaa Cheikh Bara yaa yaa connection Macky Sall dàqoon kaañoo waate fi Macky Sall da kaañoo gars kaañoo foo gis ni <laughs> kaañoo Abdou Diouf dafa amoon fullam Abdoulaye Wade am fullam Macky Sall am fullam jël jomaay nangu fullam chaque jour ñu mais loo wax comprendre lul c'est pas la première fois ñu def ko benn Cheikh Bara Ndiaye njëkkoon nañ ko ko def Touba defaat nañ ko ko ñëpp président man Diomaye rek laa gis ñu bu ko def xale protocole Chirac da doon dem partout Irak ak feneen da doon dem partout Sarkozy da doon dem partout Hollande daa doxaani ji ci euh, euh, euh, scooter Hollande scooter la doxaani ànd ak xaritam ñii ñu dóor casque mu tam doxaani mais ñu jëm bëgg a jàpp benn jomaay bu ko def benn liir na ko jomaay bañ na ko jomaay bañ moo leen jiite ñoom jiitewuñ ko faut saa ça soit clair na am nes boobu jomaay dafa humble jomaay ni ku baax la gars yi dañ ko fi soppi robot barke rasulaay dinañ ko fi soppi robot maa la man bu ma gisee jomaay sax ni ñu ko bëgg a soppee robot nii non dama dama tiit ko Macky Sall ak biiram toujours nu mu doon doxee est-ce que dañoo changé ni muy waxee oh ma ngeen ñaan ma ko nga may ma ko gars yi di ne <laughs> ah oh boo ko bëggee da koy ñaan euh, ci ñàkk ah ci ñàkk ah <laughs> reetaan Abdoulaye Wade bu toogee lu lu yëg lay wax oh maa ngi ñëw ñu may ñëw nopp oh naan ma kii naaw xam loolu mënu ma ko nangu loolu ko nangu loolu loolu du ma ko nangu loolu man kenn du ma nopp. man damaa dee quatorze jours fi la fekk la kaay segg nga mel ni ki màcc tàngal ah ñu koy jaay di di ma jaay xabar bi man dara ah, man man moo ab laa wadu maa leen gën a dee ah ah da nga xama dañoo réew xama loolu def mais est-ce que protocole bi nañu mais bu dee jamaay la gars yi mel ni ku yor ab liir quoi non de nga gis ndeysaan même joxe buy dox tànk yi sax da ngay gis mu koy orienté ku teg tànk bi nii ku non ñu ñu bëgg la def xale quoi ko tegal gauche bi après droite bi la après gauche ah loxo nag ne balancé wu nii nan la ko yor liir naa nañ ko jàng loxo ne balancé wu nii non xoolal kay non bu bul xippi no xut leen xul oh bul bul gëmm mais ñaata yoon la Ablaye Wade dem fenn nalaw fa ñaata yoon la bi dem fenn nalaw fa ay jàng ay kii ñu ñu yee ko oh non oh, man de for naa fi bët non oh, non oh, <laughs> loolu moo ko ñaata lañ def Abla nalaw mais bu dee Diomaye ñu ne ko du nalaw quoi. donc xul xulul bëri ni bëri xulul la bu bu gëm de bul gëm de bul gëm président du du bu non mais sa waay <laughs> na métti de bañal bañal waxuñu dëgg bañal waxuñu dëgg. président day nalaw boo sonnee da ngay nalaw nit nga doo robot bañal billahi gars yi dinañ yàq sama waa ji quoi protocole boobu dinañ ko yàq quoi dinañ ko fi def robot nii robot quoi dox bi sax boo toogee bul nalaw xullil nga gis sama copain naan nii bëri tamit <laughs> man lañ waroon jël rek barke rasulaay boo ko yëgee damay nalaw boo yandoor ne yee leen Eh, tegal tànk teguma tànk lu tax ma war a teg gauche wàcce droite waaye baa leen waxi dof yooyu waaye fan lañ bind ne ma gauche laa war a jiital teg waxoo leen dëgg billaahi protocole benn yabu fi Macky def na fi douze ans amul protocole bu ko yab Abdoulaye Wade def na douze ans amul protocole bu ko yab Abdoulaye Wade buy dox da ngay xam ne tànk yi baaxul nii lay def billaahi ni lay def tànk yi Abdoulaye Wade gis nga tànk yi ni muy def Macky Sall day jiite dee xam bu dee jamaay rek ñu bëgg ko def benn genre robot mel ni militaire ñu dàq toroxal ay nitam non non joxe yëgal bopp yëgal ak bopp bul xool bul xool bul xool ñu ngi toroxal Cheikh Baara mais bul xool mu ne nii Cheikh Baara yi ni awee tam de ñu ngi ko taxaw ñu ngi toroxal maaraañi su bu yëgal sa bopp bul xool bul xool président la mu protocole bi daf ne jamaay naan ni ñuy toroxal ci <laughs> cay sama waa ji dinañ ko yàqe quoi non dinañ ko yàq quoi billaay ñii ku bu leen bàyyee nii dinañ ko fi def dinañ ko def ku tekkiw dara loolu laa la wax ma ne la Diomaye il est très modeste nit ku baax la moo tax mën ne la cëy sama waaju di bu seetaanee dinañ ko yàq wolof laa wax de Diomaye bi ma xam il est modeste ouvert nit ku baax la la mu màggee ci village sax màggeewu ko ci ville donc nit ku xam ay nit la xamul ay toroxal nit ak ay def yooyu Diomaye n'est pas violent il est bien te bu doon président Poutine mu gis nitam da koy nuyu bu doon président américain mu gis nitam da koy nuyu ñun ñëpp gis nañ loolu Macky Sall bu gisoon nitam da koy nuyu danaa leen expliquer dafa am Macky Sall bu mu nekkee Mermoz di jàng nekk université dëkkoon Mermoz am benn benn copain am euh, bu santoon Fall bu mu dëkkaloon am benn benn siste njaago bu leen doon fóotal bu leen doon fóotal quoi maa ngi koy nuyu de passage ni ku baax kooku doon leen fóotal mu raar ko nag ba Macky Sall pare doon ministre doon nangam nangam nangam boobu étudiant la mu gëj ki gëj ko gis ba benn jour mu amoon défilé bu amoon euh, camp militaire euh, bu nekk bu nekk wetu palais camp militaire euh, camp militaire kii mooy bu nekk palais rek bu nekk wetu palais bu nekk ville camp militaire boobu mu amoon benn kii drapo quoi mooy levée de drapo te bu leen de ndaw soosu am keneen ku ko indi ku ko fa yóbbu mu dem fa kooku xaritam boobu jëkkëram militaire la bu fa demee mu taxaw nii barke rasurlaay camp Abdou Diassé ah, bu nekk ville kon ak camp Abdou Diassé non Jal Diop Jal Diop Jal Diop dafa amul levée de drapeau Jal Diop cercle maître des officiers Jal Diop Jal Diop Jal Diop moo doon moo ma doon rappelé de levée des couleurs la woon Jal Diop déglu de nee na moom xaritam bu jigéen jëkkëram militaire la ñu invité ko mu nee ndaw si moom dafa dem taxaw ni Macky Sall di dox ak protocole bi barke alxuraan ndaw si bu nee na ndaw si moo may expliqué de dama Macky Sall di romb loxo nii Macky Sall mel ni ku xàmmee ndaw si ci saase Macky Sall ne fa naan ay protocole bi may leen ma tuuti ma ñëw may nangam nangam mel ni protocole bi yàlla lañ nuñ bëgg a def jomaay Macky Sall moo déplacé wu protocole bi topp ko parce que mooy chef mooy président mu ñëw ba gis ndaw si nuyu ko ne ko am na fu ma la xàmmee de ndaw si moo may expliqué am na fu ma la xàmmee ndaw si ne ko man maa leen doon fóota fóotal mu ne ko fan mu ne ko mu nga nekkee étudiant ba nga nekk ba nga tëkkoon ak wax tur bi quoi turu ko euh, xaritu Macky Sall bi ba ngeen ñëw foofu maa leen doon fóotal ak seen gi rek ma ne non wax nga dëgg reetaan ak yow gis naa la gis nangam nangam ne yow commencé di ko tooñ toog njaago eh mais njaago nag bàyyi nga lii bàyyi nga laa jël na une minute di wax ak moom. Kancal Diop ñëpp a ngi taxaw woo chef de chef de protocole ne ko jëlal numéro am jëlal numéro am Sall continuer mais alors Kancal Diop mu continuer ndaw si ne ma le lendemain chef de protocole moo ko woo na ko Macky boole nañu jaaral pare ndaw si jël taxem dem. petite porte mu dugg petite porte fekk fa enveloppe enveloppe bu deux millions Macky Sall may ko ko deux millions ndaw si dugg ci petite porte bi gendarme bi ne ko yow yaay nanga mu génne carte d'identité mu jox ko deux millions ma ne ko Macky Sall moo la ko may mais lan moo tax léegi depuis jomaay ñëw fii rek gars yi bëgg a jël def ko xale lan moo tax naan jamaay euh, euh, euh, ah, ah, xamatul ay nit léegi président la mel ni président yi dootoo xamati nit amatoo ay nitu démb xamatoo kenn dootoo nuyu dooto wax amoo fi fitu traversé nuyoo sa eh, waay gars yi nañ na jamaay bañ loolu waay waaw you know voilà j'ai vu une vidéo de Kadhafi qui a sauté presque embrassé un sympathisant lors de sa visite au Sénégal eh, mi ngi noonu mais le même le président Euh, le président guinéen bii passé xaritam boobu noonu tam handicapé bi mais bu nga ko gisee dafa déplacé wu ñëw nuyu ko invité ko tabaski le président guinéen bii bu mu ñëwee ci ci jomaay euh, bu muy bu muy def bu muy prêter serment mais gis na fa benn handicapé xaritam xàmmee ko déplacé wu ak ak protocole yëpp ñëw nuyu ko waxtaan ak moom jox ko numéro am invité ko tabaski taxaw moomu ñii tabas tabaskeeg moom mais pourquoi ñu bëgg ñu jël jomaay bëgg ñu ko ji dumbuyaa def na ko lan moo tax ñu bëgg jël jomaay xale loo ko bëgg ñu def benn xale bu ndaw ñu wër ko ñoom bëgg ko bëgg a bëgg ko noonaloog ay nit nitamu démb di ko torox toroxal ay nitum démbam mu taxaw nii di ko gis ñu koy gëmloo ni protocole amoo droit wax yow président waxuñu dëgg waxuñu dëgg yow déggu leen ma ne waxuma ay waxu nuyoo de gars yi waxu nuyoo de jamaay sax pour nuyoo léegi problème la day yëkkati loxo <laughs> jamaay léegi nuyoo sax problème la jow day yëkkati loxo de yow yow xam man man waxuma sax nuyoo foo bu ñu fa duggee sax beneen affaire la jamaay sax nuyoo bu bëri defatu ko day day yëkkati loxo dugg ci oto nii eh, jamaay ni pour ñëw nuyu gars yi nii dóor loxo <laughs> loolu loolu fan foo gis non dama foo ko gis yow fan nga gis jamaay day di loxo nii di di foo ko gis yow protocole baa ngi yàq sama waa ji nga naan ma comprendre oo sax bu subaa ngay comprendre waxuma la lool man dama la wax ne la nitam yi ñuy toroxal ci kanamam waa APR di wax naan ay noo président la nekkatul ay nitam moom président du am nit président amul xarit président amul ay nitu démbam kon kay président waru am jabar kon bu dee président moom moom moom avant moo doon président am na jabar bu mu bu mu doy président na fase jabaram yi comme bu mu demee ba amee jabar noonu la amee papa parce que tabaski dem na tabaski papam noonu la amee yaay dem na tabaski ci yaayam kon noonu la amee ay xarit mais lan moo tax ñu bëgg ñu nangul président ay xarit euh, ay jabaram nangul ko ay yaayam ak papam nangul ko ay frère am koy woo muy woo mais nanguluñ ko ay xaritam dama ne fu président bi taxaw ay xaritam ñoo fa ñu leen di toroxal loolu amul benn loi bu ko nangu ne ñi nga xam ne ñooy ñoo ko wër ñooy protocole dañoo war a toroxal ay nitam lu ma wax leer na naññ olof laa làkk bu jaxasoowul bu leer naññ bu raxul tus bu raxul ay affaire ay fan bu raxul ay ay ay bëgg nit ñi du ma gis ay kéem man dëgg laa xaq dama ne dara terewul jomaay muy dox gis ay nitam yu ko jagee démb ak bërki démb ñu leen di toroxal ci kanamam ay ñi nga ba pare muy taxaw di ko seetaan am na droit wax am na droit ubbi gémmiñam ne leen bàyyi leen ñi ngeen di toroxal xam naa ñii samay nit lañ bu ma miinantewul ak ñoom du fi ñëw ndax am nañ seeni honneur Cheikh Bara moo bëgg jomaay rek man bu ma kenn defoon lii tuum jomaay bàyyi naa ko àddina alaxira ak nu ma ko bëgg-bëgg Cheikh Bara moo bëgg ñi moo bëgg jomaay ko billaahi jomaay gënu ma ci ndey gënu ma ci bàyyi doonu man nangu man gis benn jomaay nii ñëw ñu may bu wax naa ne waaye yow kan kuy jomaay kon fa lay jaaree ma bàyyi ko àddina alaxira damay kuy kuy kii ba pare mu koy gis xam moom jomaay xam na ni man bu ma ko gisee c'est parce que sama gaañ la moo tax ma gis ko mais man jomaay gënuma ci ndey gënuma ci bàyyi ba ma am ñàkku fayda ba ñëw war ko gis nii pour kii ko ay nitam di ma toroxal mu taxaw di ko xool kon laa lay bàyyi àdduna ak alaaxira billaahi ci laa lay bàyyi xam woon na ni gënoo ma ndey gënoo ma bàyyi doon président dafa la yàlla dafa la yonent ñu ko la ko fi jiitu ñoo fi nekk daanu tey ñu leen di romb fii kenn du leen xool donc nit ki bu la yàlla barkele ngay gën a jàpp say nit sa nitu démb ak sa bër ki démb bu buñ lay jéemal di la toroxal ak di la rey ñoo taxoon di la ñaanal di la wàccal kaamil li ñuy def Cheikh Bara Ndiaye du dëgg du yoon jomaay di ko gis di ci teg bët du dëgg du yoon maa ko wax jomaay man en tant que nit en tant que xarit en tant que ku ku koy wax dëgg parce que jomaay nee na ku koy wax dëgg la gën a bëgg ko koy fen sama genre ki la jomaay di wër interview la ne ku may wax dëgg laa gën a bëgg ki may fen ku may wax dëgg laa gën a gëm ku ku may raay musuma am discours man a jomaay ay di ko raay mbelle musuma am complexe am donc man maa ko wax dëgg man sa gaañan yow jomaay dama ne boo gisee say nit ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak li mu daj yëpp pour yow ku mel ni Mara Niass li mu daj yëpp pour yow joxoo leen ñu jël seen i sarax di la defal di la ñaanal di la wàcceel kaamin di rey seen bopp nga ñëw fenn ñu lay honoré say nit di leen toroxal nga koy xool du dëgg du yoon du dëgg du yoon waa APR di ko jël di ko di ci di leen ko toroxalee noonu du dëgg du yoon yaa ko may sa li nga li président may na la nga ne bàyyi leen kii loolu moom mooy mooy mooy kilifteef waneel ni yow kilifa nga ñi nga jiital ñooñu yaa jiite imposer sa suprématie loolu mooy dëgg Cheikh Bara barke alxuraan Cheikh Bara daa baax billaahi <laughs> non yàlla naa ñibbi Sénégal rek ba benn rek war a gisal jomaay <laughs> am ku ma naa keroog sax jomaay mu dul demee noonu kon kaso laay dugg billaay wallaay kon kaso dugg ndax xam naa ni dinaa fa yàbbeeku yàbbeeku boo xam ne ah kaso duggi parce dama naa leen wan ni kii ngeen di kii du dara du tuus du nix mais yegguñu foofu mais Cheikh Bara moo baax ko ñu ñëw di kii ñëwee bumax di toroxal ngay dab ñëwaat ñu lay bumax di waay sa waay bi dellul ci yàlla rek man sama waa gi dellul ci yàlla lu yàlla wax fi yàlla rek a fi ne Cheikh bi billaahi neexuñu ah bépp épris de justice neexu ko lu la gars yi di def nii neexu ko neexul kenn comme ñun suñu waa yi moom amagul fulla yi mun a imposer ci kanamu euh, euh, protocole am bàyyi ko noonu sa waa ji day dund lu neexul ñun ñëpp xam nañ ko moo tax ma ñaan Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne Mara ñu bañ a wàccalu suñu waa ji xam nañ ko wàccalu suñu waaj ji amagul fulla bu tay ni di wax ak protocole parce que dañ koy imposer sax lu mu buggul suñu waa yi day ñëw tourner gis gis benn Euh, lu lu mu tuddati benn waa ji waay ñaaxarañ billaay wallaay ak ko naqari mënul sax wax sa baara dañ ko moom dañ ko koy imposer moom président bi mu tourné gis ñaaxarañ di ko jox day ndeysaan tourné waat gis ñaaxarañ nii di xool nii ñaaxarañ di xool parce que protocole bi ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko këf nekk nii comprendre dara pour l'instant day jàng nag xam naa dina am yi ful la na ko si ñoom Cheikh Bara comprendre noonu ay Cheikh Gadiaga buñ ko taxawal nii mu koy nuyu <laughs> xool protocole bi di ko ko di ko ko forcé di ko dóor pilule yi muy xoolal man yooyu yu mel noonu duma ma la jege parce que damay xam ni instant yi moo ma goo sa bopp mais bés bu demee ba am fulla ba gis ba gis affaire bi dafa day dal day nalaw ni mais day yow de dina ni xërëb gis affaire bi commencé di wax mais pour l' instant gisagul waaw pour l' instant gisagul man maa ngi fi ñu ma soxlaa pour l' instant Sénégal moo fa ñëw vacances laa pour l'instant ñii ñoo ma soxla jox ma seen liggéey ma koy def aw ma congé maa ngi waar bés bu ma soxla Sénégal soxla ma ñëw mais rek booy sa waay ñëw fu ñu la woowul moom yaa tooñ ñëw fu ñu la woowul yaa de ña woowuñu ma ña nga toog buñ toogee woowuñu ma nee na soxla guñ ma fenn fu mu ne nii soxla guñ ma fenn ci dara du sama xam-xam du sama culture du sama voyage du sama dara ma toog fu ñu ma soxlaa fii ñoon soxla nañ ma fii heure dañ may liggéeyloo di ma fay soxlaa nag buñ ma soxlaa nag ma ñëw sinon bu ñëwee pour gis yoon soxla wuñ ma de voilà man maa ngi fii ñi ma soxla daal sa yéen yéen soxla ngeen ma chaque jour ngeen may gis maa ngi leen di jox samay idée samay point de vue di laaj ngeen taxaw di déglu di tagg di yóbbu di soxla ngeen samay idée maa ngi koy partagé ak yéen ñoom soxlaguñ dara ci man moo tax maa ngi fii ci ñi ma soxla ñi di ma fay di ma teg ci ay xam sama valeur teg ma fa pour l' instant ñee soxla guñ ma buñ ma lu mu fay def moo moo fa ñëwee lu ma def tam maa tooñ eh, guñ ma de soxla guñ ma daal naa am fulla ma dama am fulla nag ba may xeex jotee xeex naa ba mu mat sëkk à par 14 yu ñu rey maa première victime à part 14 yi à part 14 la ñu rey en vingt 2022 kenn deewul ci après 14 yi attaqué wuñ kenn man maay première victime à part ñu ñu rey première victime man lañ ñëw wër sama kër teg pën fekk sama njaboot ci biir taal leen booy lépp tout dem seen yoon dóor balu fetal dem seen yoon maay première victime donc bañ ma ko defee nag ca la commencé gars yi ñu dugal ñi kaso ñi di ci la après ci lañ dugal ay ñoom kuñ fi dugal ku lu fi waay daj kullu lu fi waay daj man man lañ maa maay première victime bu ñuy compter victime après les morts première victime ci xeex bi man la <laughs> léegi nag amuñu ñu ngi teg seen i structuration soxlooguñ ma maa ngi fi ci lu ma ne ñiñ fi jël ñëpp même fii Canada gii ñiñ yóbbu ñëpp ñoo doon nekk ci combat man la woon Lamine Semou mu ngi woo nii sax xam naa day waajal dem Sénégal parce que fal nañ ko ak kii nutriti moom moo euh, waaye Chérif ñii ñoo doon nekk ci kanam Chérif di jóge Québec di ñëw ñun ñi ñe ñett yëpp yóbbu nañ leen man maa fi des ñetti leader yi ñu xeex fii Canada ñetti leader yëpp dem nañ Macky Sall ba mu ñëwee moom Souleymane Jules Diop leader fii da koo yóbbu ñii ñoom Sonko Diomaye bu ñu ñëwee man kese lañ fi bàyyeeku ñetti ñëpp dem nañ Serif dem na euh, ma nga fa woo nañ ko ci buñ ko wooyee la dem demu fa avant ah, ñu ko woo de ma nga fa ñu ñu yóbbu sawaay mooy directeur Soleil dem na semoo ngi noonu di waajal moo may woo nii moo tax laaj bi dagg di dagg di ñëw ma nga waajal moom tey dem man maa fi des léegi nag ful la laa am de dañ fee toogoon ba ñu woo leen ful la googu laay am toog fii gënuñu ma xeex fii xeex naa ba naaw nag bokk ci leader combat bi fii laay toog di ko fi continuer ba buñ ma soxla buñ ma soxla woon mu nekk fu ma nekk rek nag nekk ci sama combat waaw topp leen nag marquage à la kilo voilà bi nga noonu fa jaana tàkk ful la googu daal moom am naa ko moom lu mu fay def woowu ñu ma kii ñu ma bokk loon bokkaloon combat bi quatre yi yëpp trois yëpp dem nañ woo leen te bu ñu leen wooyee lañ dem demuñu avant ñu leen di woo de voilà bu ma woowu rek ma ma am sama fulla bu day ni man du ma Cheikh Bara Ndiaye de di gis domaay nii di kii ñu lay toroxal ngay ñëwaat ñu lay torox du ma ko def mukk du ma demee fu ñu may toroxalee mukk duñ ma du kenn ci ñoom gënumaa combat kenn ci ñoom kenn ci ñoom gënumaa taxaw amul benn ful la buñ ma ëppalee ful la moom daa am naa ko moom fa laa da xaar moom ma ñam jeexal ko na Cheikh Bara am fulam te dinaa ko woo direct wax ko ko na am fulay boppam na am fulay boppam na am fulay boppam bu mu nangu lii bu mu nangu lii du benn yoon du ñaari yoon dafa ëpp te saa ñu koy def jomaa ngi taxaw saa ñu koy def jomaa ngi taxaw di romb wala muy kii ba passé noonu lañ ko def pourquoi ça mel ni président du du amul ay mais yàlla sax am na xarit yàlla am na xarit xam ngeen xaritam noonu Ibrahima xalilulaa xaritu yàlla yàlla sax am na xarit ñu ne ay président amul xarit quoi président du am xarit ñoo mën a fenn waa am am na xarit Mouhamed salaa salaam am nay xarit waa say xarit yu ànd ak yow démb bërki démb ay protocole yu tekkiwu dara yoo xam ne dañ fiy jóge bëgg la di néewal sa doore doole say nit yoo xam ni bëgg la moo tax ñu ñëw pour gàttandu la sol lu gën a rafet ci seen i mbir jël seen almoir lu fa gën a rafet sol defaru ba jekk bàyyi seen lépp ñëw di la gàttandu ah gis la bëgg la nga ñu leen di toroxal noonu sax kanam di jël ñu tekkiwul dara nga xam ni dañ lay jege ñoom ñoo la wër ah nga nangu ñoom ñu protocole bi di la nangul waa APR di la wër di la nangul nitu APR di la jege di la nangul benn ñaaxarañ bu la jege suba ngoon ko dégg ba ci di la nangul benn Cheikh Cheikh Gadiaga bu la jege di toroxal say nit nga toog di ko seetaan nga toog di ko seetaan nii. loolu dëgg la est que dëgg la Sénégal ñëpp nee nañ du dëgg du yoon kon man sama doom ndey jomaay maay wax yi loolu du dëgg du yoon say nit démb ñooy say nitu tey bu daray àdduna tax du pale du dara lu war a tax ngay seetaan ñu leen di toroxal man amul lu nekk ci àdduna lu fi mën a taxaw sama kanam lu war a mën a tax ngay toroxal samay nitu démb man tax di la seetaan du ma ko nangu duma ko nangu tey te duma ko nangu ëllëg samay nitu démb ñoo ñoo taxaw bu dara dul dara donc ñooñu gis nga sonk du def yooyu loolu jomaay moom xam nga baaxam la dañuy utiliser baaxam jamono ci protocole bi ñëw Sonko am na la bu day ni loolu dégg mukk ci fon sonk gis nga li ngay dégg ci doo ko dégg ci sonk parce que alxuraan sonk bu dooroon président de la république nga xam ne moo fa teg jomaay bu ko doonoon billaahi bu gisee ni daf doo non sonko moom phénomène la sonko phénomène la sonko moo tax boo wax sonko da wax sonkoo wax président yi nekk ci kaw ay euh, Vladimir Poutine ay Kim Jong ay ñoom yi nekk ci kaw ay ñoom Mandela ay ñoom Sankara ay Lumumba bu ño booy wax sonko ñoo ngay wax parce que kooku moom vraiment kooku idéologie boobu la yor kooku xam nga ni sonko am na fulla bu day ni ànd ak ay nit waaw sonko dàq nuyoo fi <laughs> Sonko Colobane lay dugg naan nii gars yi tën tën loxo yeewu sa mel ay eh, ma nu demee kër tën dóor am na protocole de am na protocole de mais Sonko Sonko am na fulla bu day benn protocole yabu ko da nga xool naa ko ay xoolal xaaral ma toroxal sa nit xoolal góor loolu di nga ko def Sonko jomaay nga ko def parce que dafa baax cool jàpp ay nitam di toroxal boo doon Sonko eh, yi nag yooyu doon li la foo ko teg aywa nekk nit yow lii mooy lan bu doon Sonko xam nga ni lii Diomaye rek lañ koy def parce que Diomaye moo noppi quoi <laughs> billaay ne Sonko pro yom na protocole ba waaye yow man xaaral ma laaj leen benn affaire Korité ak Tabaski <laughs> suñu premier ministre fu ñu ko doon jullee Korité ak Tabaski fu ko suñ premier ministre doon jullee ñoom ñëpp ñoo doon boolandoo di ko jullee grande mosquée de Dakar saa yu Macky Sall ñëwee premier ministre bi ñëw Amadou Ba même bu fa doon woon jullee fa lay jullee ñoom ñëpp wër ko <laughs> Sonko ak gëm-gëm ak principe li nga xam ni te binduñu ko fenn ah, ci constitution bi mais gars yi ñooy topp ay rafetal nii rek jomaay dem julli ji grande mosquée mais pourtant Abdoulaye Wade demul grande mosquée <laughs> moo tax gis nga ni da ngay gëm sa bopp Abdoulaye Wade demul grande mosquée murit ba la doon dem guy ga xaw guy ga la Ablaye Wade doon jullee ji <laughs> te pourtant Abdou Diouf grande mosquée la jullee Ablaye Wade ñëw ne ko jullee mu ne man man Grand Dakar laa newoon ñaari tali xam fan laa jullee ñu ne dem guy ga fa la doon jullee ba présidence bi yëpp Ablaye Wade mi ngi ko jullee fu mu doon jullee démb ak bërki démb Sonko fu mu doon jullee démb bërki démb protocole ak protocolaire ak avion yi naaw ak bombe atomique ba léegi mooy dem danaa protocole leen jullee fu doon jullee dawuma grande mosquée lu tax doonu ma fa dem démb doon pourquoi ma fa war a dem nii ti forcé te laa Macky Sall saa yi doon julli premier ministre ñëw ci wetam Sonko day am jomaay day julli Sonko du fa ñëw Sonko day dem ca fu mu doon jullee démb ak bërki démb démb ak bërki démb mais lan moo tax jomaay ñëw ñu ñu orienté ko xoolal naa ko demal grande mosquée du bëgg-bëgg jomaay de moo tax lu mu fa dégg lu ne la fay dégg day toog ñu ne ko fii sañu jomaa la sañu jomaa la mu toog nag sañu jàkka la waaw da ngeen di participer wala ngeen génn ci jumaa ji maa leen ko wax nag waaw yow jamaa na nga xam ñun dañ ñoo yàgg a jàppale waaw maire de Dakar nañu jàppale ñëpp dañ ñoom dañ ko continuer te yow da nga war a jàpp di ci jàpp nag waaw joxeel ci jàkka ji yow jomaay nu <laughs> boo demoon fa nga doon jëlee démb ak bëgg démb lii doo ci fekk billaay lii lépp ñuy teg yi noppi waayu jomaay la noppi waayam quoi noppi waayu bàyyeeku nii rek gaa yi di ko moo tax lu mu fa dégg lu nee la fay dégg déggu gu fa sax dina ñëwaat dinañ ko gën a waxaat dina ñëwaat tabaski bii wala korite ñu ne ko joxel ci àllarba àllarbay jumaa ji jumaa bu nga fi ñëwee ba léegi yow da nga nay joxe ko joxel joxe daal joxe daal joxe lépp lan la <laughs> parce que décidé gul quoi jomaay moo décidé gul moo ñëwul imposé suprématie gars yi ñoo koy jàpp di orienté nii rek di ko yóbbu di ko dina ñëw di ko jàpp ko di ko def liir quoi di ko bi biitee mbaay duutee mbaay nii di ko duutee mbaay jàpp jomaay def ko lii ñu toroxal ay nitam eh, eh, ñu ne noppi ah, noppi noppi ko lan la waaye li nga def sama nit a non non non kii la protocole jàpp jawaay di ko def bébé ko protocole bu ñu eh, sama nit bi ñoom pour lire nga protocole protocole protocole waaye ah, yow ñaaxarañ mi ñëw sama wet nag ñoom noppi noppi noppi bul wax bul wax bul wax ñoo garaaw du protocole Cheikh Bara duñ ci toroxal sama non non non bul wax bul wax protocole ayo protocol protocol bébé kii du bébé joomaay <laughs> joomaay bébé gars yi ni bugg a def sama waa ji métti na ma nag protocole am gii non te te te maa ngi doon sama waaye li neexul waay neexul ci xol man nag comme mënuma wax wax ak jawaay jamono maa ngi wax ak Cheikh Bara Cheikh Cheikh fa dem bul fa dem comme ñoom protocole yi ñoom waa APR lañ nangu ñu jege jomaay bu leen fa dem bu leen gisee sonko ngeen dem moom sonko moom kenn du leen toroxal doo gis mukk Cheikh Bara di dem ci sonko ñu koy def di doo gis mukk Mara Niasse comme jomaay moom gars yi <laughs> def nañ ko beneen dugal dugal nañ ko ci beneen monde ñàkk nañ ko léegi nee nañ jomaay du amatul xarit nee na jomaay am na jabar am na doom am na ay soxna am na papa mais amatul xarit ñun nekkatuñu xaritam man koy moo tax léegi jomaay nekkatu sama xarit man comme <laughs> waa APR ne nañ bu ñu toroxalee <laughs> ñu ne ñu ne kii président la nag amatul xarit <laughs> kon nag sama sama xarit bi sama xarit jomaay euh, sama xarit bi maa lay bëggee rek di la ziar ah mënatoo ñu gis de gis nga euh, xañ nañ la sañ protocole bi léegi mënatuñ laa nuyu mënatuñ laa kii gars yi ne nañ léegi président nga daal léegi daal euh, la la Macky Sall amoon Abdoulaye Wade am ko Abdou Diouf ñoom ñoo am ko liberté boobu ñu amoon yow amoo ko tëj nañ la ci protocole bi daal waaw foo dem rek portocol ba saboté ba nga demee Touba ña fa nekk wër yëpp waa APR la say nit ñi jël leen joxuñu leen bat si ba ca maire ba sax amul bat si kii nga xam ne moom mooy Cheikh Thioro Mbacke cinq badge lañ ko jox cinq cinq jël badge yëpp jox waa APR ñu seddoo seen biir ñoo la recevoir ca bâche ba ñeneen ñe say nit di tawte <laughs> protocole a liggéey loolu di continuer rek de sa gars yaa ngi mer rek de fu sa protocole ba dem sa ak say nit nga demati France ñu yow indi waa APR ya teg waaw ñëw xëcc benn dem xëcc benn benn ñaaxarañ mu taxaw xëcc benn ga mu taxaw ñuy dóori loxo di tàccu di toro naan mbëllee say say waay na ko ñu ngi ni tooga moom kii du jox sa gars yi di ma dañ dañ toog fu ñu toll rek naan libéré Diomaye libéré Diomaye libéré loolu léegi mu commencé bu lii moom bu ko ne il faut ñu teg libéré Diomaye parce que dañuy wax Diomaye Sonko ko téye Sonko téye ko def protocole am boobu ñooñu ñoo ñoo ñoo ko bëgg a xañ ay nitam waaw jox jot na nag ñu ñu commencé vraiment ni ñu xool moom mun na ko gis jege ko ñaaxarañ euh, euh, mun na ko jege mais ay ñoom dañ leen di toroxal di leen dàq fu ñu dem fu ñu dem waa APR la ñuy jël jox leen badge ñu wër Diomaye nit Diomaye ñu bu wax nit Diomaye nag waa affaire yi kontaan <laughs> toroxal lañ Cheikh Bara toroxal lañ Cheikh Bara laay laay la laa ay waay kii kan la Mara Niass toroxal nañ Mara Niass <laughs> gis ngeen li ñu la wax suñu nit yi ñoo wër jomaay ñoom ñëpp a ngi nii kee nekk na kee APR la kee APR la kee DG ñoom ñëpp ñoo wër jomaay <laughs> léegi dinañ dem ba waa Pastef yi dootuñu am fit sax jege jomaay jo ko dootuñ ko jege parce que ku ñëw ñu toroxal la waa APR yi wër jomaay nag di njaaba njalle <laughs> ah ñu ngi noonu Zil Diop sax indi nañ ko Zil Diop Zil Diop sax ñëw na recevoir moom moo recevoir jomaay moom moom ne France premier jour deuxième jour bi ñëwul de loolu yëpp pour toroxal xanaa xam nga gars yow gars yi nit de waa affaire dañoo am alal am doole premier jour bi Jules Diop moo recevoir deuxième fois bu fa bu fa bu fa jamaay dem est-ce que Jules Diop bëgg recevoir ñëwul de <laughs> bàyyi na ko foofu boobu démissionné gul de bàyyi na ko foofu premier jour la ñëw rek jox ko loxo gi sabarte waroon ko de eh, ñoo fi nekk ba léegi de ñun APR ñoo am doole bi système bi yëpp la ñu miine fii mënoo fay rëcc jox ko loxo mu dem ñu ñëwati ñu ñu ñëw gis Cheikh Gadiaga bu taxaw eh, waay eh, fii nooy na laay eh, dara soppeeku fi ñu ngi fi ba léegi de APR la waay association des présidents de la république fii ñoo ko moom voilà que la ñëw ne waaye man man ma ñëpp laay sinap man président yi damay sinap maa maa ngi nii maa ñaa xarañ waaw kay da ngeen di seen xol yi day toj rek waa waa passé fi di punk <laughs> gars yi dañoo yab kii rek ndeysaan <laughs> dañoo yab dañoo yëpp sama sama sama copain nag ndeysaan te moom defewu ci dara nag ak ñëw ko sonal ñoom daal sama grand lañ sonal waaw Pape Alé ñaamu dañ koy sow ah Pape ah, mais wax leen jomaay <laughs> protocole jomaay bi protocole bi de waxuma yembar leen de waxuma yembar leen de waaye daal ñoom bëgguñu gis nitu jomaay bëgguñu gis nitu Pastef APR moom bu ñëw dañ koy accepté noon daal la demee ba pare nag nay jomaay xoolal géej bu ñu toroxal say nit sa yoon new ci buñ leen rajaxe sa yoon new ci bu buñ leen di dóor sa yoon new ci buñ leen di sa yoon new yow yëngalal bopp rek yow bu dee waa APR nag da nga nangu ah ok mu ne waaw ñu koy saañ ñu koy saañ waa affaire rek fu mu dem ñu jox ko cinquante tonnes APR benn waa Pastef cinquante tonnes APR fu mu dem cortège bu ubbil ubbi juróom raay fukk dugal yëngal cent cinquante waa APR benn waa Pastef ñu dàq ca ñeneen ñu tooxa a xaj nii la nii la demee waaw protocole APR la nag nañ ko waxte dee de ñoo fa nekk ba léegi de ñii de ñi ma gis nii de voilà kon nag gars wax naa ba mar dëkk bi moom li fi ne moom dafa dafa jaadu voilà lii nag moom yu ma mujjee kii yëpp jomaay laa ko yónnee bu dégg dina dégg ni copain mooy wax ak moom balaa ñu ko féewale ay nawlem ak ay nitu démbam voilà di nga wax nag président tamit du yàlla du yeneen yàlla sax am na xarit donc ay xaritam démb ak xaritam bërki démb waaw na am fulla bu day ni bañ a bàyyi kenn mu séparé leen te ni ñuy def ay xaritam ci ay kanamam noonu muy xool te ñimewut a wax wala du wax loolu amu ci benn droit voilà loolu mais buñ ko bu ñu anticiper dina ko dina ko gérer jamaay nit ku mu teel a assimilé ku mun a dégg ku mun a dégg la dina dégg wax ji incha allah dina dégg wax ji de dina dégg wax ji te dina soppeeku bu soobee yàlla nañ dafagum nii rek buñ jógugum as euh, libéré libéré jomaay libéré jomaay loolu bu demee bu affaire bi dëgër nag après nag ñu def libéré Diomaye libéré Diomaye protocole amba libéré Diomaye libéré Diomaye des mains de l'APR libéré Diomaye des mains de l'APR libéré Diomaye des mains de l'APR libéré Diomaye des mains du protocole libéré jo bu boobaa nag day ñëw mais pour l'instant comme moom day dégg te nandita la nit ku baax la baaxam moo ko indee lii lépp dañ ko koy bàyyeegum nii rek voilà dañ ko bàyyi bu ñu bu ñu booyee am nañ slogan libéré Diomaye des mais de l'APR libéré Diomaye des mains du protocole boobaa dina ñëw ñu def benn mouvement yi taxaw génn nag di xeex pour ñu libéré Diomaye euh, des mains de l'APR ak des mains du protocole de l'APR voilà mais pour l'instant comme day dégg nañ nañ ko bàyyeegum kàddu gi rek waaw dina ko dégg incha allah mu am fulla bu Abdoulaye Wade amoon que protocole du baayam fulla bu Abdou Diouf amoon ni protocole du baayam du yaayam euh, protocole fulla bu euh, Abdoulaye Wade euh, waa Touba yi nag ñoo waa Touba yi gars yi dañoo mer gars yi dañoo mer waa Touba yi ñoom soo <laughs> waa xam naa nag gis nga lii loolu moo tax gars yi waa Touba yi may wo doucement moom laa nekk di wax nii doucement yëg naa lépp yónnee ngeen ma audio yu junni audio pour ma jógee tey suba lu ma gis ci ay audio yë ngeen yónnee ngeen ma junni audio photo yi vidéo yi ngeen ma yónnee gis naa lépp gars yi <laughs> gis naa lépp mu ñu ngi nii yónnee nañ ma junni audio di kaas di wax nu leen protocole yi toroxalee jël waa APR jiital fekk ngeen may wax ak sama copain bu leen jaaxle fekk ngeen ma may wax ak pour l'instant ak sama copain donc yëg naa lépp yëg naa lépp ñoo may woo nii ci di yàq sama live bi yëg naa lépp moom laa nekk di wax ak sama copain comme wóolu ngeen ma ba wax ma seen i naqar ak seen i frustration ci ni leen protocole bi toroxalee def ko jël waa APR ba jiital jox leen lépp badge ñuy recevoir di jege lépp dégg naa ko moom laay wax ak sama copain nii voilà moom laay wax ak sama copain waaw Touba yi nee nañ ma junni audio te ma déglu ba ba sama noppi di riir ñu ñu leen def métti na trop nag sincèrement vraiment protocole jomaay bii moom ça laisse à désirer quoi mi ngi mi ngi yàq mi ngi sabote dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ngi sabote vraiment protocole jomaay bi yaa ngi sabote vraiment gars yi ngi sabote yéen a ngi sabote de te ñun bu ñuy xeex yéen a àndoon ak i Sall de kenn ci protocole boobu génnul taxawuñu yéen a àndoon ak Macky Sall de donc da di war a nekk cocc nag doo leen di malaaka bàyyeeku bàyyeeku wu leen ci asamaan si fii ngeen nekkoon ànd ak Macky Sall voilà nay leer fii amul benn danger Cheikh Bara Ndiaye du mus a doon danger devant Diomaye ni ni ni ni ni Mara Niass arrêté arrêté arrêté lii lañ def Touba Touba daal bu ñuy recevoir Diomaye ñu ko wër ñëpp waa APR ñu ko wër ñëpp gars yi photo yi lañ ma woon vidéo yi ñi ubbi bool yi ñi taxaw ñi ngi yëpp affaire booy nag leen leen xam waa Touba dañ leen xam dañoo dëkk ak ñoom di xeex ak ñoom waa ñu fa nekkoon yëpp quatre-vingt-dix-neuf pour cent waa APR lañ ñu doon xeex nag ak waa Pastef yi nekk Touba. jomaay di ñëw ñu jël waa Pastef yëpp sànni ca jël waa APR jox ay bâtis ñoom ñoo waroon jomaay ba mu fees ñu fa nekkoon yëpp ñoo doon xeex ku nekk di placé wu di positionné wu. est-ce que loolu neex na ci xol déedéet loolu metti na waa Touba yëpp metti na waa ah, Pastef Touba yëpp naqarlu nañ ko yónnee nañ ma kaddu ya yónnee nañ ma baat ya nee nañ lii metti na leen xeex warul ven combat bi warul mujj ci ay loxo waa APR waa Pastef xeex ko waa APR jëriñoo ko continuer di seen njaaba njalle ak wër président ba ñiy dàq waa Pastef yi di jegale waa APR yi du dëgg du yoon voilà waa APR ñi ba léegi ak jomaay waa APR ba léegi kan ngeen dégg ñu dàq fa yi ngeen xamul de ngeen dégg ñu moom laa njëkkee waa APR yi ñi ngi ak jomaay te fu jomaay dem yi dañuy def ba à ce que waa APR ñooy leer na jomaay dem na France waa APR yi ñoo ko fa jege ñoo ko jox loxo ñoo ko jege ci mbedd yi partout demaat na France waa APR yee ko jege bu mu ñëwee fii fu mu nekk yëpp saa yoo leen gisee waa Pastef dañ leen di bu max waa APR ñoo ko jege loolu kay xanaa gis nga ko gis nga ko ok Jomaay même ñu ko wër ñooñu foofu lañ nekkoon secrétaire général bu palais bu Macky Sall la kay tàppe Macky la ka yor programme pale ba waa Macky Sall la jëleeguñ leen fi ñu ngi fi fees tepp ñoo wër Jomaay quatre-vingt-dix pour cent protocole ba quatre-vingt-dix pour cent waa Macky Sall lañ kooku na la leer nee naa la bale ba sax bale ba setagul waxuma laa feneen voilà ñoo nag lu ñuy jéem moom mooy frustré waa Pastef yi kese Diomaye waroon na jàng ci premier voyage ba bu mu demee ñaaxarañ ñëw Sénégalais yëpp métti lu ko ba mu delluwaatee gisaat ngeen ñaaxarañ affaire bu metti affaire bu naqari gars yi dañoo mënul nekk ci affaire mais loolu Diomaye war nañuy dimbale war na dimbale waa Pastef yi ci ni leen di jéem a frustré parce que ay xeex xeexkat lañ ay jàmbaar fàq tëdd lañ lu ñu liggéey xaaruñoon ni dinañ fi def lu mel nii ba pare di continuer di dundaat misère yi ay misère la ay naqar la xeexuñ bay bëgg a dee saa yu lu ñu xeex ba xeex Diomaye première fois ba dañoo wax ba dee ba mu mujjaatee encore gisaat nañ fa ñaaxare demaat na fa taxawaat na mu taxawee woon photo Sénat nu mu ko neexee delluwaat donc loolu Diomaye na déglu peuple bi quoi na bañ a déglu protocole boobu fu koy dugal ñaxtu fa sax nay déglu peuple bi na déglu peuple bi na bàyyi xel peuple bi ci protocole am na bàyyi xel peuple bi asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu